الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن إن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiya allahu an cheikhina tijaani wa man lana ilayhi wasilun kaashiful xumami mbokki jullit yi mbokk Sénégal mbokk réew mi mbokk àddina bi yépp rawati ñi ci diaspora bi fu waay mën a nekk ci àddina ci cinq continents yëpp man seen taalibe seen xarit seen soppe seenub jàmm bu ñuy wax Chérif Ibrahima Aïdara Tijaani ma dellusiwaat di leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wu màgg wii nga xam ni fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin mooy chahru ramadan al mubaarak alladi unzila fihi al quraan yàlla dogal na weer wii tey ci la alxuraan wàcc waaye wàccam googu nag dañ ko jëlee ca lawxul mahfuuz indi ko ci asamaanu benn bii tiim ñu loolu mu ngi am ci laylatul xadri ci guddig laylatul xadri ci la ko seydinaa jibril jëlee ca lawxul mahfuuz ci ndigalal boromam ndax malaaka moom laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun ñoom malaayikatu rahmaan yi duñ def lu lu leen yàlla digal ñoom mënuñu def bàkkaar xamuñu ko sax ndax yàlla bindu leen ci bindu leen ci bàkkaar bindu leen ci ñu mën koo def ndax ñoom leer kese lañ nit a jinne rek mooy def bàkkaar ndax ñoom ñoo am leer am lëndëm léeg lëndëm ngi not leen bañ wàcc yoon léeg neer gi leer gi gànd leen ñu jub moo tax yàlla wax ci alxuraan fa day ni kon weer wu tedd la weer wu màgg la weer wu rëy la ci àddina bi yëpp waaye rawati ci jullit ñi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla def nag ñu am sens fekkee ko yàlla nañu yàlla may ñu fekkeewaat ko déwén yu bari lii la àddina bi yëpp muy covid 19 wala coronavirus yal na ko fi yàlla jëlee ni weer wi di jeexee mu ànd ak moom di dem te incha am na ñu ci yaakaar ci kaw li ma waxoon ci kaw li ma waxoon ci kaw li ma waxoon Serigne Cheikh Ahmad si nee na nañuy ñaan tey faju sallallahu alayhi nee na li kulli daa in dawa feebar bu ne am na lu koy faj suñ borom nee na maam Ibrahima ko waxoon yàlla jottali ko wa iza maritu fa huwa yashfini feebar bu ne yàllaa koy saafara waaye loxol borom a nga ca biir may ñaanaat sénégalais yi masque yi ñu digle te ma wax fi démb wone ko nuñ koy takkee na ñépp uti masque takk ko lay amatul ku mënta jënd masque chirurgical yi yu tissu yaa ngi fi jëndal takk boo ñibbee sa kër dugal ko ci eau de fóot weer boo xëyaatee solaat yomb na képp ko dëgg la man maa gën a xam li ci Sénégal toujours dama koy tooñee monsieur le maire Alioune Sall ma ne ko le président de la république maa ko ëpp renseignement généraux fuuf ndax li ma xam ci réew mi xamu ko ba mu koy xam léegi talatu ko li ko li li liñ koy jox comme information am na yuñ ciy maquiller man nag yi may xam maquillé wuñ ci dara loolu nag dama ko wax ngir yàlla ngir yàlla tax ma wax ko maa ko ëpp renseignement généraux fuuf le chef de l'État li ma xam ci banlieue bi xamut ceeram li ma xam ci Sénégal xamut ceeram na ma bàllaax nag c'est le chef de l'État c'est le gardien de la constitution waaye wax dëgg moo jot nit ñi nañ leen teg ay daan te c'est lui le le chef de l'État moom mooy responsable li may wax nag ñu baal ma xam naa ko de nit ñi dañ foog ne feebar bi caaxaan la sénégalais yi ba léegi jëluñ ko au sérieux jëluñu ko au sérier te it état nag maa ngi koy interpeller encore une fois loxo ma ngi ci biir na teg nit ñi ay daan ku génn ci mbedd mi takkuloo masque na la alkaati teg ci barab amende la dix mille francs fekk fayee ko doo dem boo ko fayee ñu bala nga dem te da ngay takk masque door a dem nañ ko def lu tey ñu mën ko def rassemblement yi ñu ñu bàyyi ko xoolal billets d'or yi bu dog jotee ni muy def mel ni ko amul mburu da ngay dee mburu dafa bokk ci dund waaye nañ nañ waxante dëgg mburu bokkul ci dund ku ñàkk mburu dangay ngay dee mais demal ci kaw gi am na ñoo xam ne bu ñu lekkee mburu tabaski bi tabaski la man xam naa li may wax am na ñoo xam ne buñ ñu lekkee mburu feet ba feet la pour yow bu dog jotee mais nga jënd mburu mi sax fanaanal ko xanaa xamuñ ne mburu mu fanaan moo gën mburu mu tàng ñu bàyyi nit ñi ñu mel ni ay sànqaleñ ci bies doore yi pour lan mais na état jël responsabilité am na état jël responsabilité am gis nga lii bu bu buñ ko bàyyee boy boyal ko ba mu ëpp fi loxo ñun ñëpp daañu yenn suñ loxo di yuuxu parce que lii xew orop senegaal ceeram sax attanuñ ko benn amuñu moyen yi nañ waxante dëgg suñu hôpitaux yi dara newu fa ay lali bant fa nekk yu kenn xamut tus newu fa nañ xam suñu bopp fagaru moo gën faju ñu baal ma àq nag man dama xam li may wax ndax ci banlieue bi laa dëkk maa ngi en contact ak nit ñi tous les jours xam naa li xew kenn du ma jàngal li xew Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si nee na bokk ci coow li xam li xew a ko gën mën a waaxu xam yoon a ko gën bari pexe saf yàllaa ko gën ñett yi nag fexe naa ba incarné ko moo tax kenn duma jàngal Sénégal ku may jàngal Sénégal newu fi fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin nañ jël mbir mi au sérieux suñ ko jëlee au sérieux bu koor gi di jeex mën nañu korite ñun ñëpp ci bayal yi waaye suñ ko jëlul au sérieux ñu tëj jàkka yi rek li imaam Moussa Guèye mu baax mii di wax moo fi ne yàllaa ñu mise à pied ñun jullit ñi ne ñu bàyyil leen ma sama jàkka yi bàyyil leen ma sama masjidul haram bàyyil leen ma masjidu nabawi ndax yéen seen bopp yi ndox neewu ci nga baal ma ngeen baal ma nag waxante dëgg bu jotee dañ koy waxante état na jël responsabilité am état lu ko neex mu am état d'urgence baa ngi nii ku fi génn à de vingt heures ñu làppale ba nga nooy ni ñu jëlee mesure état d'urgence nañ ko jëlee mesure ci rassemblement yi ba tey mu ngi am nit ñaa ngi tukki ba tey te loolu yëpp état teg na ci bëtam fuñ mën a tëjee jàkka yi mën nañu tëj marché yi ministre de la santé maa ko dégg mu waxal boppam mu ne cas communautaire yi mu ngi ëppee ci commerçant yi mais kon xam ne fi feebar bi ne nañ ko faj ah man maa ko dégg fena lu ma ko man lu ma fi wax lu jaaduwul nañ ma yóbbu ci yoon lu ma wax lu jaaduwul rek joxe naa sama bopp pour ñu yóbbu ma ci yoon teg ma ci yoon parce que réew mi nag ñoo ko bokk dama ci am wàll suñ ko doon séddale dinaa ci am ci ndey ak ci baay kon nag bu waxante dëgg jotee nañ ko waxante te yàlla rek tax kenn ku nekk ni wàccaat nekk ca la nga nekkoon na état bi jël seen responsabilité da ngay génn fii gis nit ñi kenn takkul mask particulier yi nag ñoom laa ci gën a mere da ngay gis kuy jaay patron nekk ci biir otom di jaay ne patron la du takk masque ba kañ boo dee ñu summi la sang la laxas la ba nga dëgër dugal la ci biir pax état lu mu santaane lu ñëpp loi kenn ëpp loi ñun ñëpp loi moo nekk ci suñ kaw luñ joxe comme loi na ko ñëpp respecté amul patron bi amul baadoolo bi ñëpp a ci bokk yam na ko ñëpp bokk respecté lu tax ñii kumba am ndey kumba amul ndey di am jaaduwul nañ jël mesure ci pièces d'or yi jël mesure ci marché yi wax naa ko fi démb nañu tëj marché yi di ko ubbi di ko ay ayloo su marché bi ubbee lëndi ba ca des ubbi bi boulangerie yi ñu ñu ñu organiser ko mais ñun picc xoo rek mooy suñ mbir dernier moment xëccoo sénégalais dernier moment xëccoo dernier moment xëccoo mais duñ def dara ci temps nañ xam ne feebar bii li muy rey kenn mënu la ko wax am na yuñ ci dut wax nañ arrêté sénégalais yi nañ arrêté te ñoo ko mën a arrêteel seen bopp kaa communautaire yi mu ngi commencé di bari cas communautaire yi mu ngi commencé di bari li ñuy am par jour mosuñ ko am par jour buñ neen nag réew mi alaaji Malick tëdd sëñ Touba tëdd ñoo ñu dem nañ xad xalat min qablikum laha maa kasab maa kasabat walakum maa kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun foofu rek laa ciy yem ngeen baal ma parce que réew mi nag ñoo ko bokk te danger yi may gis jëmul kër de inspecteur jëmul kër de jëmul kër de jëmul kër de sëñ Abdou Lahad Mbàkke mu baax mi nag moo daan wax ni dal xel yeggul ci dëkkee lu bon yaakaar lu baax waaw sëñ Abdou moo ko daan wax radiyallahu taala an moo daan wax ne dëkkee euh, dal xel yeggul ci dëkkee lu bon yaakaar lu baax <laughs> mënul nekk xanaa sàcc sax bu yàggee sàcc ñu yóbbu ko kaso ah, jeex na lii rek la ne ñu ne démb wax naa ko fi ne ñuy takk masque yi di laal gel yi wax naa ko fi démb gel yi man ça fait cinq ans ma koy utilise fii ci kër gi foo dem ci sama kër yi gel yi mu nga fa ëpp na cinq ans ma di ko utilise yi ñuy fompe ramp yi ba mu koy am boobu kenn xamu ko nga xam ne boo ko fompee ay ramp dina am euh, quinze jours benn virus du fa nekk foo dem ci sama kër yi mu nga fa waaw ñun ba ñuy jël précaution du tey kon li ñuy wax nit ñee tax bu doon suñ bopp rek ñun mën nañu mucc waaye nit nag yées mu ngi yem ci man sama bopp rek laa tal kooku yàlla lay njëkk a jéppi sax nit ñi nañu sénégalais yi nañ nañ fonk seen bopp waaye lillahi wa rasuli li état santaane pour ñun la président Macky Sall fa mu nekk ci palais virus mën na ko faa yéex a fekk <laughs> moom balaa dee ñun ñëpp ñu dee ba pare xanaa ñun ñëpp bu dee buñ dee dafa dut am ku muy gouverner rek moom ndax koy gouverner ay nit lay doon ah, te buñ yéexee daañ fi dee comme ay sànq lañ nañ arrêté sénégalais yi nañ arrêté ça suffit doy na nañ arrêté seen yëfi caaxaan yi nañ arrêté seen yëfi caaxaan yi xëccoo mburu ba dee toog sa kër ba dee moo ko gën lan mooy bies doore lan mooy bies doore nekk rek ci bies doore yi di xëccoo mburu di xëccoo mburu di xëccoo mburu qu'est-ce que ça veut ñun est-ce que ay nit lañ ñu ngi réfléchir yal nañu yàlla defal sutura maa ngi jéggalu ñëpp nag joxuma kenn leçon dama bokk ci réew mi li Alaaji Abdou Aziz daan wax lay wax awma sulta awma saytara sulta mooy dominer ay peuple ba loo leen sant ñu def ko saytara mooy am kàddu ba loo wax ñu def ko ñaar yooyu awma ci benn waaye nag xanaa citoyen la bu bëgg lu baax ci réewam kon sañ naa wax luy defar suñu réew ndax ci laa bokk bu Sénégal yàqoo maa ngi ci biir bu Sénégal jege maa ngi ci biir ndax sama famille li ma am lépp Sénégal la ne kon nag yal nañu yàlla defal sutura ñu nuyu nag kilifa yi fi nekk yëpp ngeen baal ma àq ñi may seetaan à travers le monde ñëpp ndax lii en direct la maa gën a xam ne en direct la moo tax may profité ci occasion bi pour ñëpp dégg ko xam ne danger ngi ci réew mi. y'a danger danger bi mooy coronavirus bi arrêté wul te nit ñi gëmuñu ne coronavirus mu ngi fi ñu ngi def lu leen neex tey lañ gën a boyal seen bakkan yi tey lañ gën a dem fu leen neex di sàcc di tukki mais arrête nañ bàyyi yëfi caaxaan yi nañ ko bàyyi waaw confinement bii ñuy ñi ñu nag koo wax mu naan confinement confinement barki rasulullahi encore une fois Sénégal attanut confinement Sénégal attanul confiment buñ ko fi defee gis nga soulèvement balee am Nigéria soulèvement balee am euh, Afrique du Sud mooy am Sénégal parce que nit doo ko tëj ci këram amul lu mu lekk balaa dee ci këram dana génn uti li mu lekk te Sénégal attanuñu confinement attanuñu ko balaa ñu yegg ci confinement confinement lay tax confiment du am nañ ko bàyyi mën nañu ko bàyyi mais luy mburu oh sénégalais mburu mburu mburu ba nga rey sa bopp exposé sa bopp ci mbedd mi ba dee ndax mburu luy mburu yu ñàkk fayda rek la Sénégal bëgg yu ñàkk ak ak jaay prestige maa ngi dem bies doore jëndi mburu rek moo leen ci neex lan mooy cim nit ñi di jëm di naani café États-Unis yow ngay xëccoo bies doore xanaa bu doon prestige rek <laughs> vraiment nit ñi dañ may dañ may dañ may énervé Serigne bu ko defee kon ñu nuyu kilifa yi fi nekk yépp di leen sant di leen ziyaara man seen mbokkum taalibe la man taalibe la du ma patron du sëriñ taalibe la taalibe pire li ma ubbee rek war na leen xam ne man taalibe la dama ne seenu mbokk seen jaam seen xarit seen soppe bu ñuy wax Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane yi moo del si di waxtaan ak yéen xam ngeen ne kañ man taalibe laa man woote wu ma dara li ma bëgg rek mooy nekk taalibe rek laa bëgg gannaaw bu ma nekkee jullit ba noppi damay ñaan yàlla nekk taalibe am jàmm ak ñëpp nag loolu rek mooy sama itte guddi ak bëccëg te su ma sañoon àddina bi yëpp am ko su ma sañoon ñëpp dundee noonu su ma sañoon ñëpp yegg ci boobu étape ndax day defar rek du yàq waaw unanimité kenn mënu ko am yàlla mi bind jaam ñi sax amu ko waaye moom ñàkk koom nag ci coobareem la ndax tey jii xam nañ ne am na ko wala amu ko tey xam nañ ndax yàlla am na ko wala amu ko unanimité am na ko ndax monde bi unanimité yàlla tëj na leen ci biir pukkus te kenn génnul monde bi unanimité yàlla jël na ñëpp ne leen ràpp ci biir yi néeg te kenn yënguwul te lu tuuti ci mbindeefam la yebal loo xam ne bët mënu ko gis loxo mënu ko làmm mu ne ko demal ba yi xam ne man xajuma ci géew bi yow rek laay yebal yow yow yow ku ñuy wax coronavirus demal boo demee nga ne leen nañ ñi réglé demal waxal ma sama jaam yi ne leen nañ ñi réglé <laughs> léegi réglé wuñ <laughs> réglé nañ de fi mu ne nii bi ñëwee rek kenn ñemewuta nuyu moromam ñu ngi respecté distance bi ah, man li may wax maa ko njëkkee su ma neexoon fii fees del lenn rek la police ñëw dóor fi lacrymogène nit ñi génn daw dem ñibbi ah, kon bu ma respect man li may wax maa ngi koy dund maa ngi jéem a respecté li état san digle maa ngi ci waaw ah, kon nag yàlla ñàkk unanimité moom la neex ñun nag kenn ku nekk boo sañoon am unanimité ndax mooy sa jàmm waaye yàlla moom ñàkkam ko moom la neex ndax moo wax ne walaw shaa allahu la hadakum ajmain su ma neexoon man yàlla yéen ñëpp ngeen jub preuve baa ngi nii tey ah ku jubul it yaa ngi jub jublu de dafa noon bàyyi leen joxante loxo góor ak jigéen ñu ne ko ñoo bañ léegi bàyyi nañ ko par la force bàyyi leen accolade ñu ne ko non accolade dafa baax de dafa neex léegi bàyyi nañ ko par la force ah bàyyi leen biis ñu ne ko ñoo bañ kenn ñemeetu ko dee leen toog seen kër yi bu ngeen doxul farata ñu ne ko dañuy taxawaalu nu mu ñu neexee léegi yam tere woon yëpp te pourtant yii ñuy def nii yëpp islam daf daf ko tere li l'islam day tere ku du dox lu dul soxla toogaayu mbedd l'islam da koy tere kuy dox soxla rek la l'islam may ngi ngay ngay génn di taxawaalu loolu moom tubaab yee koy dund ñun nag ku ci toogul ci mbedd mel ni ku feebar ku ci génnul taxawaalu ji mel ni ku feebar ñun moom ñu ngi nii rek li ñu yàlla bindee daal mu ngi noonu yàlla nañu yàlla defal sutura su ko defee ñu nuyu kilifa yi fi nekk yëpp nag eh, boole ci di leen ziyaara jiital ci alxaaji Souleymane sëriñ Souleymane sàmb bi ñu fi nekkaloon démb mu wuutu fi alxaaji imam Mouhamad lamin Sakho mu baax ma ak oustaz Mbeng ma di leen nuyu au passage ñoom ñu nga ca Saalum tabaarakallaa fa la leen yëf yi fekk ñoom it mënu ñu bloqué mënuñoo ñibbisi di nuyu magam ju baax ji di Mouhamad Samb fa tabaarakallaahu di nuyu nag suñu soppe bopp bii di alxaaji imaam Abdoulahi Fall nga xam ne àjjuma bii di ñëw ca Seras moom moo ko moomoon ni moo ko moom sax lañuy wax démb Kumba Fay moo ko moom sama sœur boobu ca Anne Mariste tabaarakallaahu moo moomoon waxtaanu démb bi ndax foofa lañ ko daan defee tey jii waxtaanu tey bi Parcelles Assainies ñoo ko moomoon ñoom Adja Suuna Ndiaye di sœur ci ministre de l'intérieur fa tabaarakallaahu ñoom ñoo ko moomoon par intermédiaire Ndey siise sama boobu boobule ñoom lañ koy defal at bu jot kon Adja Suuna au passage ñu ngi leen di nuyu yéen daay seen association bi di leen jaale nag ña fa faatu yëpp fa tabaarakallaahu ñoom sax dese yooyu fa am moo tax ñu tànn tey tem nit kuy waaj a génn àddina naka lañ koy taxawoo bu nekkee ci sukuraat looloy thème bi tey maanaam bu nekkee ci sukuraat naka lañ ko war a taxawoo lan la ñuy wax ci wetam ba ba muy faatu bu faatoo naka lañ koy taxawoo ci saasi am na noo ko war a taxawoo boo ko taxawee noonu ba noppi yóbbu ko ca morgue ba door a am boo ko yóbboo ca morgue ba naka lañ koy sangee naka lañ koy sàngee naka lañ koy jullee naka lañ koy yóbboo ci bàmmeel ña koy gunge sax comportement bi ñu war a am yooyu yëpp dafa am solo comportement bi ñu war a am kuy gunge néew ak bu ñu yeggee ña na ko war a dugal ci pax muy këram ak nu mu war a tëddee ak nuñ ko war a tëralee ak nuñ koy suulee ak ku fa war a mujj loolooy waxtaan wi tey muy lu Sénégal ragal nag Sénégal moom looy wax bay waxtaanee dee ñoom ñëpp fële lañ jëm. ko day mel ni rek ñoom ñëpp a dee ndax ah ñooyee nag li woykati arab ba waxoon ne fii nga dëkk defar nga ko ba mu baax te fa nga jëm defagoo fa dara doon nangoo dem bàyyi fi nga defut <laughs> doon nangoo dem fa nga defut bàyyi fi nga def lii rek la moo tax ñu ragal dee waaye kañ ku mu wóor ne fële préparé nga ko doo ragal dee man de billaahi bu ñëwoon léegi ma jël man dama doyal ci àddina bi xamu yàlla xam na ko man bu dee ñëwoon léegi ma jël te am na nu muy demee rek ma def départ volontaire dem billahi lazi la illa huwa alxayul qayum li may wax du caaxaante te ñépp xam nañ ma nag kenn rek laa ciy xool muy Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Al Hadj Omar moom rek laa ciy xool bu duloon moom def naa départ volontaire dem bu yàgg àddina bi dara def fi ne dem ca Cheikhouna Tidiane kañ ak Seydi Hadji Malick ak ñu bokk ko ñoom moo gën a moo gën a neex fuuf man dund daf ma intéressé intéressé wu ma yàlla xam na ko intéressé wu ma sama bakkan bii intéressé wu ma yàlla xam na ko bu du loon Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh El Hadj Omar def naa départ volontaire dem bu yàgg xam naa nuñ koy defee te mën naa ko waaw nit ñi nañ dañuy caaxaan rek dañuy caaxaan dañ foog na am na ñoo xam ne dund intéressé na leen man dund intéressé wu ma yàlla xam na ko njaboot yi nag njabootu yàlla lañ de ñi ma jur <laughs> loolu intéressé wu ma am na ku dee bàyyi fi doomam. te doomam baax wala déet salaay sallam fekku fi baayam Seydi Hadji Malick fekku fi baayam ñeneen ak ñeneen ak ñeneen noonu <coughs> kon dee bàyyi fi balaa may dee ñu naan boo fi dee bàyyi fi ay tout tànk nu ñuy def nu ñuy def yàlla lañ fiy desal muy boo nee leen sax te mënaloo leen dara qu'est-ce que ça veut voilà nit ñi nañ bàyyi caaxaan man ni ma àddina bi soofee fi mu ne nii billaahi bu dul woon Cerno ba billaahi bu dul woon Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Al Hadj Omar dem naa bu yàgg xam naa ni ñu koy defee te mën naa ko <coughs> am na turi yàlla yoo xam ne boo ci wooyee yàlla mu mu léegi mu ne la loo bëgg nga ne ko dem mu ne la préparé nga jaar fi nga war a jaar dem amul benn problème nit ñi nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi caaxaan réew mi fi mu ne nii kenn xamul lu muy niru kenn ku nekk ak lu la neex li neex ka la neex pour lan ba kañ kenn ku ne li la neex ak li neex ki la neex li neex yàlla kenn nekkatu ci yoonu kenn newu ci fonkante wuñ bëggante wuñ wuñ respecté wante wuñ kenn ku nekk yaa ngi ci lu la neex ku la neex booyal sa làmmiñ ci moom ku la neex xas ku la neex ŋàññi sa làmmiñ nga booyal ko ci tout le monde respecté woo benn kilifa du kilifa àddina du kilifa diine du kilifa benn bu ñu ormaan dund foofu nag danger la sax dund ci réew moo xam ne sa kilifaay diine ormaaloo leen sa kilifaay àddina ormaaloo leen te kilifay diine kilifa àddina yëpp yàlla ñu sant pour ñu ormaal leen wa atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi cheyin wa rasul ay yàllaa ko wax waxuma ko yàlla suñu borom moo ne na eh, yàlla dolli sutura hmm? na ngeen ma topp man yàlla na ngeen topp sama ndaw li muy rasulullahi na ngeen topp ñi yor seen mbiru àddina mooy seen gouvernement mu ne wa in tanazaatum su ngeen demee ba xëccoo ci mbir moo xam ne sama jëmm jee tax man yàllaa tax yàlla di wax de fa in tanazaatum fi shay'in mu ne fa rudduuhu na ngeen ko delloo ilallahi wa rasul ci yàllaa ko yonentam mu àtte leen jeex na waaye réew moo xam ne kenn ormaalul mag ña fa nekk réew moo xam ne kenn ormaalul sa état respecté woo sa bopp respecté woo sa moromu jàmm respecté woo kenn mais réew moom a fa dëkk fa sa danger la parce que am na loo xam ne buy ñëw yàlla du épargne ku am ak ku amul du épargne ku xam ak ku xamut du épargne kenn ñépp lay mbëmbastal la preuve mu ngi nii lii xew tey feebar bii am coronavirus mer bu yàlla mere jaamam yi la mais ña ko def ay du yem ci bopp borom wa taqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xassa yàlla nee ne na ngeen ragal fitna ndax du yem ci ñi ko def kese ala nabiyina afdali salaatu wasalaam yoon ci yàlla Muusa dafa am benn dëkk boo xam ne Jibril daf ko sëpp soixante-dix mille personnes ñu nga ca dëkk ba xam nga kon du lu tuuti ah Nouvelle-Calédonie bii rek cent et mille lañ matuñ un million personnes ci province su la bokk Nouvelle-Calédonie matuñ cent mille personnes cent mille cent et quelques mille personnes lañ matuñ un million waaw xoolal soixante-dix mille personnes jibril sëpp dëkk bi yàlla ne ko demal ca dëkk ba nga alag leen nañ déglu li may wax bu baax ci jamono yoon ci yàlla Muusa jibril sëpp dëkk bi fekk soixante-dix mille personnes yëpp ñu ngi jaamu yàlla ni ko yàlla santaane loolu nekkuloon population dëkk ba de waaye soixante-dix mille personnes ñoo fa doon jaamu yàlla laa bëgg a wax ni ko yónnant yàlla Muusaa di defee yàlla ne jibri jibril dellu ci suñ borom ne ko dëkk bi nga ma yebal de pour ma alag leen fekk naa fa juróom-ñaar fukki junniy nit yoo xam ne ñu ngi jaamu yàlla ni ko anbiyaaw yi di defee mu ne ko njëkkeel ci ñoom suñ borom ne jibril demal nga njëkkeel ma ci ñoom jibril ne ko lu tax mu ne ko mbonte ga fa nekk terewuñ ko donte ñu ngi may jaamu boole leen ci buñ ñëwee ma atte yàlla dara safu ko dara réyul ci bëtam kenn réyul ci bëtam xatta ba ci rasulullaay réyul ci bëti yàlla de yàlla da koo bëgg nag ormaal ko fonk ko teral ko defal ko lépp waaye réyul ci bëti yàlla yàlla kenn réyul ci bëtam ndax bu kenn réyoon ci bëtam du nekk yàlla kenn réyul ci bëtam rasulullah nag yàlla teral na ko fonk na ko yëkkati na ko màggal na ko lu mu bind rasulullah tax waaye du yàlla nag yonent bi du yàlla de jegewul sax yàlla maa awzallaahi bu doon yàlla du dugg bàmmeel te mu nga ne ci bàmmeelam ba ñu di ko ziyaare donte nag fu ko neex mu dem loolu yàlla may na ko ko waaye du yàlla nit ñi fokk ñu xàmmee ne ñu xàmmee ne ñu xàmmee li yàlla moom ñu jox ko ko yem képp ci liñ war a yem soppante bëggante loolu moo ñuy jëriñ waaye yi fi détails yi du ñu jëriñ kon imaam ñu ngi lay ziyaare bu baax di la bàyyi nga yeewee ko ndax yaa ngi ci ay soxla te nga nuyu ñu monsieur le maire yooyu mu la wax yëpp njëriñu lislaam bi la njëriñu ñëpp la it yal na la yàlla dool dolli jàppale bu àjjuma boo amee feex nga ñëw toog ndax yaa ko moom jiital say kàddu jox jotal li nga war a jotal yëpp ñu door a waxtaan moom àjjumaam bi incha allah ñu ngi koy def ci julli waaw biñ ci diisoo maak moom ci julli lañ koy waxtaan incha allah mooy àjjuma bii di ñëw suba waxtaani suba bi ci laxdari la fuñ toll woon waa université ko moom alkazibu fa lañ toll woon ndax ñoom seen laxdari muqaddimatul muqaddima bu laxdari lañ jëloon ça fait six ans ci ren de ren mooy six sept ans ba léegi jeexagut fa tabaarakallaahu kon li ma doon wax démb ci faatiha kon man laxdari muqaddima laxdari université ça fait sept ans maa ngi leen koy defal jeexagul ñu ngi toll ci alkazib waaw euh, ndax dañ koy jël par point di ko développé fa tabaarakallaahu kon su ko defee imaam ñu ngi waxtaan ci moom ci julli àjjuma bii di ñëw yal nañu ñu ko yàlla def yaa ko moom mën nga ñëw bu boobaa it ngeen préparé ko chaise bu mu toog ndax moom tànk yi neexatul incha allah bu ko defee dinañ ko dinañ ko waajal daal dinañ ko waajal 14 eh, heures rek incha allah 14 comme nii rek tous tous les jours maanaam pas tous les jours vendredi samedi dimanche bu jot 14 heures la ñuy tàmbali benn benn de ci am mooy suba incha allah ba 17 heures waaw ñëpp tàqali ko eh, liet na ñu ngi lay jéggalu bu baax nag di la ziyaara xaw ma nag fu say itte toll ndax da ngay xaar wala ah da ngeen di xaar waaw kay su ko defee yéen ñëpp ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel di ndokkeel oustaz Sidi Ahmed Mbaye moom maa ko wax mu ñëw ndax jàppale ñu ci léeg-léeg questions yeeg yooyu sa rawati tey di nuyu sama nijaay male Moussa Diouf Bachir Ndiaye techniciens yëpp ñu ngi leen di nuyu euh, tabaarakallah Abdou Aziz papa ak Thierno ak Abdou Aziz Seck ba ca serveur yi ca Somone ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di sant ñëpp di ndokkeel ñëpp Sayid Guèye ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu nag kilifa diine yi ma bokkal réew mi te ñuy samay kilifa xalif généraux yi ci réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla yal na yàlla feq seeni fan guddal ko bàyyi leen fi ba ca kanam kanam ndax sagu diine ji lañ xalif généraux yëpp nag laa wax teg sama nuyoo ci ñoom ñëpp nag ci loxol Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti pour mu jottalil ma ko ci ñoom ñëpp nag di nuyu mboolem kuy wax ci rajo ci télévision ak koo mën a doon teg ko ci loxol Al Hadj Imam Moussa Guèye mu jottalil ma ko ñëpp di nuyu mboolem ñi ñu bokkal réew mi te ñu bokk ñu diine muy suñu mbokk chrétiens yi ñu ngi leen di nuyu moo monseigneur Benjamin teg ko ci loxol abbé Jacques Seck mu jottalil ñu ko ñëpp nag. mbokk yi kon ci loolu la ñuy duggee ci waxtaan bi imaam saa boo bëggee yeewee ko rek ñu bàyyi la nga dem jërëjëf euh, démb mu am njuumte bu ma def te kenn sulu li ñëwu ko ci faatiha kenn su li ñëwu ko mu ñëwal toog wéeru kenn kenn su li ñëwu ko te man maa dem di ko seetaanaat ci guddi gi yëg ne def naa erreur waaw ah? te kenn souligné wu ma ko ma xam ne kon nit ñi dañ lay déglu waaye léeg duñ la dégg waaw nit ñi dañ lay déglu léeg waaye duñ la dégg beneen bi ci desit ci laa yégee ne xëy na dañuy topp neexaayu waxtaan bi ba duñ la déglu bi ma demee di ko seetaan seetaanaat bi balaa may dog bi ngeen demee rek laa taal télé bi di ko seetaan ma yëg ne def naa benn erreur ma woo Kumba Fay Adja Kumba Fay mi doon moomoon bés bi ma wax ko ko mu ne ma ah man de seetlu ma ko fan la ma ne ko te dama tëb rabbil alamina <laughs> ah, dama tëb rabbil alamina firiwuma ko fen dama ne alhamdulilahi rek dem ci rahmaani waaw mu nga yaa ngi koy door a seetlu dama dama jóge ci alhamdu rek dem ci rahmaani rahim dama tëb rabbil alamina dama ko tëb yàllaa ma nattu nag xam nga lu tax yàlla nattu ma dama ne xanaa mokkal naa faatiha boobu yàlla rocci rabbil alamina ne ma di nga xam ndax mokkal nga faatiha wala déet waaw nit foo juumee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne bàkkaaru mbooloo dangay dem ca mbooloo ma mu set tuubee ko ko mu ne bàkkaaru biir néeg da ngay toog ci sa biir néeg tuubaat ko xam nga dama téye téere bi ba mu yàgg ma teg ko ne xanaa mokkal naa faatiha boobu yàlla ne ma ah da tiitaru léegi xaaral ma rocc sama rabbil alamina di nga dem ba pare te doo xam fu rabbil alamina nekk waxtaan naa ba jeexal jaaruma ci rabbil alamina te ñi may déglu it constaté wuñ loolu xam nga ne yàlla yàlla lu ko neex mu def de ah li ma leen di wax a ngi ni yàlla lu ko neex mu def ñi ñi doon déglu di suivre yëpp constaté wuñ lim ne dama tëb rabbil alamin bi ma demee ba di ko seetaanaat laa ne ah man ndekete rabbul al rabbil alamin a ñëwul sama tiitar gaa tax nag dama doon tiitaru bi jël bi teg ne xanaa mokkal naa rabbil alamin yàlla ne ma xaaral ma mokkal naa faate yàlla ne xaaral ma rocci rabbil alamin kon waaw bi ma koy dëppaatit waaw bi may bi may dëppaatit di di remonté di yéeg dama tëbaat rabbil alamin te yow yaa ma doon wax fatiha bi <laughs> te yaa ngi téye fatiha bi di ko xool gis nga ni yàlla bëggul kuy tiitaru booy tiitaru rek mu rëq ndigg waaw yon ci yàlla Moussa ala nabina afdali salaatu wa salaam dal na ko bés muy waa muy waaraate ba mu yàgg mu ne xanaa kenn rawuma fi yàlla ne ko waaw ah, waaw kenn raw la de waaye bu ma neexee ma bind sama jàmm boo xam ne dina la jommal moo indi digganteem ak waliyu qadir abdun min ibadina aataynaahu booba it yàlla dafa bëggoon mu xam ne xutbul fardul jaami xam na ko sax waaye dafa bëggoon mu dajeeg xutbul fardul jaami zamanihi yàlla puus ko mu wax wax boobu pour mu mën ko yàlla buy def dara day def événement ci biir événement boobu nag lay créer xeex yooyu nag ci lay créer champion gisoo virus bi boo bëggee bu ko gaa yi bëggee rey dañuy dóor virus bu ko contre booba lañ amagut nag <laughs> boobu lañ amagut ah ba ci sa gémmiñ microbe yi ci sa gémmiñ dañuy xeex gémmiñ moo ëpp microbe ci àddina ah, ah waaw li yàlla bind gémmiñ ci ëpp microbe microbe yooyu nag day neex yàlla muy seetaan ñuy xeex comme yow muy seetaan sa film waaw ah, oh, ya day yàlla daf koy neex muy seetaan microbe yi di xeex <laughs> microbe bi doom gémmiñu doomu aadama moo ëpp microbe ci àddina te du la rey parce que virus yi ci yi ci nekk microbe yi ci ne dañuy xeex yi am doole ñoo ëpp yi amul doole microbe yooyu tax ngay mën a lekk xam nga waaw bu yàlla namee nga sibiru maara day taali sii di kunta sibiru benn mi microbe yooyu lay feeble fexe ñu faible rek gémmiñ gi lewet bu gémmiñ gi lewetee wàcc ci sidit yi yaram yu tas ne na sax bu yaram wi tasee ne na sax rek li Serigne Cheikh di wax nee na mu commencé na defaral ma lu ruy bu woyof mu ne ruy woyof àllum neen nga naan defaral ma ruy bu woyof mu ne yaa ngi saalit <laughs> waaw mu ne léeg-léeg mu dolli ji def ci limon tuuti <laughs> fekk yàlla yóbbu caf ko gémmiñ rek ah <laughs> yàllaa ah, yooyu yàlla yooyoo ko neex ah, yooyoo ko neex ndax gis nga doomu aadama li ne ci li yàlla dëxëñ ci moom muy xeex dafa bari boo ko bëggee xam rek demal ci usine bu bu la neex nga taxaw ci usine bi di xool machine yi usine bu la neex ci àddina bi nag demal ci usine bi rek nga taxaw di xool machine bi gis nga fonctionnement usine mooy fonctionnement doomu aadama machine yi di mbëkkante yi di xeex yi di wàcc yi di yéeg doomu aadama noonu la ko yàlla bindee boo demee ci oto it noonu la ko yàlla bindee boo bëggee xam sa bopp rek ubbil moteuru oto wala nga xool oto moo tax oto tubaab la ca nekk yëpp organe la ko tuddee ci nit la ko copier li nekk ci oto yëpp organe ngay wax organe bi organ bële organe bi parce que ci nit lañ ko copier àddina bi loo gis ñu tubaab defar ko rek daf ko copier ci li yàlla bind avion ci picc lañ ko copier oto ci nit lañ ko copier waxukaay yi ci bois lañ ko jële caméra yi ngay gis ak yooyu yëpp ci mémoire ak ak ñuul ñuul yi doomu aadama dañ ko jële lii ñuul ak lii weex ban moo ciy gis laaj naa leen lii ñuul ak lii weex moo tere nga xam yàlla xamoo waaw kañ ban moo ciy gis <laughs> boobu beneen question la danañ ci ñëwaat ah moo la tere xam yàlla li ñuul ak li weex ban moo ciy gis fa kachafna anka ghitaaka fa basaruka al la ah waaw déet foofu moo man kañ fa kachafna anka ghitaaka fa basaruka al waxtaan bi foofu laa jëm si moo tax ku dee ba noppi la yàlla di waxal foofu fa nazara nazaratan yàlla waxu ko déglu rek yàlla waxul fa nazara nazaratan ci alxuraan ak nazaru mooy fii ci àddina mooy xool di gis moo tax Maodo mi xàmmee te mën a woy ne nawir basaa'ira abdikal mutadallil fa kasaf naa anka xitaa fa basaruka al yawma xadid baat boobu la Maodo jël waaw déedéet du gis boobu wërewul gis <laughs> dinaa ci ñëw ci kanam firiwul gis fa kachaf naa an ka rita aka fa basaruka al yowma xadid basar boobu la Seydi Xaaji Malik jël ne nag wir basaira abdika al mutazallil laa yabtaliina allahu jalla jalaaluhu bi baliyati al iraadi an zaaka al wali kañ yal nañu yàlla dolli sutura moo tax nit xijaab bi ci moom moo tere moo moo tere sax muy janoog àddina bi wërngal këpp loolooy kashfu kashfu ñaar la biñ lay ilham ak bi ngay gis ñaari kashfu yooyu rek moo am bu ci ne nag kashfu ilaahi am na ak ak kashfu seytaan am na kashfu seytaan nag soriwul distance bu gàtt la lay wan kashful ilaahi nag mën na la woon bi àllaaxira taxaw mooy la shérif su waxoon Abdou Ndiaye Abdou njaay moo jul moo jur Serigne Amad Ndiaye Aaroon buur la woon mu nga gaañoo Preya fii la ne woon Senghor yóbbu ko Preya ci histoire bu gudd ba fa la njaay soose yi dañ ko daan wéyal am na kooraa boo xam ne Laalo Keba Dramé defal na ko ko Abdou njaay buur la woon man samaani man samaani ci soose mooy buur Ah, euh, moom Abdou njaay boobu li mu am Chérif Yunus a ko ko may dafa seeti Chérif Yunus ne ko na ko ñaanal yàlla may ko pouvoiru àddina Chérif Yunus ne ko maa ngi lay xool yow pouvoiru àddina ëpp nga ko waliyu nga <laughs> xoolal loolu Chérif Yunus ne ko yow waliyu nga sa wilaaye da nga koo xamul waaye mu ngi ci yow mu toog rek Chérif Yunus fixé ko fixé ko di ko xool pendant 15 minutes ne ko jógal dem xool bi ma la xool sar na ba ci say sët ñëpp wali yu la ñuy doon moo jur sëñ abdu njaay sëñ Abdou Ndiaye moo jur am sëñ Aman Ndiaye mooy sëñ Aman Ndiaye la ko waxoon sëñ Aman Ndiaye moo jur am moo Abdou Stafurla la ko waxoon Abdou njaay moo jur sëriñ Amat Ndiaye aaroot sëñ Amat Ndiaye moo jur Abim Ndiaye mii di xalifaam tey waa Bouchra waa Bouchra yi sëñ Habib mooy xalifa bi tey ñu tuddee ko Alaaji Habib si Alaaji Habib def fa kiraama yu rëy ndax ba ko sëñ Aman Njaay di sañc foofu Bouchra foog ay jinnee fa newoon kenn ñemewu fa ñemewu faa dëkk sëñ Habib dem def fa ñaari weer <laughs> sëñ Habib caatu sa Alaaji Malick bi caatu Seydi Hadji Malick dem def fa ñaari weer muy jigi muy def nawet di dem di ñëw ba stabilité am mu door a bàyyi te boobu kenn ñemewu fa dëkk mook sëñ aman njaay dong nga fa ne woon ndax ay jinne ñi de sëñ Habib di leen dégager par benn alaaji Habib si di leen dégager di leen dégager ba ba fa mujjoon ñi jàngee busra yëpp xam nañ li may wax jëmm nag la yoroon bu ñuul kukk am na taalibe yu ko fekkee bés ñu toog di jàng rek nag wi riir utal si leen waaye bi mu ñëwee ba jub sëriñ Aman Njaay rek la samp béjjén bi fa la yem Sénégal am na ñu baax de eh, Sénégal am na ñu baax de boo bëggee mucc nag xam nga nooy def koo gis fonkal koo gis ormalal koo gis wegal koo gis respectel ndax li yàlla def ci moom xamoo moom la walla du moom booy def nag koo gis ne waajaa nga waaja du la rëcc mukk boo bëggee mucc rek koo gis rek neel waajaa nga boo bëggee mucc koo gis neel moo gën bul xool sa ngeneel ci kenn jàppal na ñëpp la gën yow jaamu ñëpp nga bul yëg sax ne jullit nga ndax sa njullit wóoragu la feek demuñ bés penc ba taxaw ba yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu nga bokk ca ña wuyu sa njullit wóoragul te wuyu sax taxul a mucc booba mën nga yegg si benn maa ngi mu ne la li ma taquluuna maa laa tafaaluun <laughs> ba nga nekkee ca àddina lu tax nga daan wax laa loo daawul jëfe enquête commencé kon ñu jël rabbil aalamiina bi rek doora dugg nag ci suñ tem kenn du tëb nag ne rabbil aalamiina damay jëlaat alhamdu bi ci lu gaaw rek kon suratul fatihati gannaaw aouzu billahi min ashaytaani rajim ndax suñ borom moo wax ne téeréem bi soo koy jàng loo ciy jàng lu mu mën a doon na nga njëkki aouzu billahi min ashaytaani rajim mooy maa ngi làqu ci yàlla di muslu ci saay-saay bi ñuy wax seytaan loolu lay firi imaam Khomeini rahmatullah wa radiya moom waxoon wax bu daw yaram imaam xomay ni dafa am bés mu bind ci benn téere mos naa ko gis mu ne balaa ngay wax auzu billahi min asheytaani rajim nee na jeexal sa bopp njëkk ba xam jikko yi seytaane am ba yàlla dàq ko këram yow ndax amoo ci benn mu ne soo jeexee sa bopp ba yëg ne am nga ci benn nag mu ne bul tooñ seytaane neel maa ngi làqu ci sama bopp ji muslu ci yàlla mu ne ndax yaa gën a bon seytaane te seytaane benn jikko bu bon rek la ko yàlla dàqee këram mooy rëy ñun nag yépp lañ boole ñun ne faax rëy rek la yàlla dàqee was aba wastakbara mooy rëy rëylu rëy sax amut aba wastakbara rëy rëylu rek la ko yàlla dàqee këram te Iblis liggéeyal na yàlla de moo tax naw naw sa jëf wóorut yëg sa bopp wóorut yonent bi saai sallam nee na bi muy rañaan jóge Màkka jaar bay Medinatul Munawara dem masjidul aksa nee na bi mu yeggee masjidul Aqsa ba départ jëm asamaan mu ne asamaanu benn ba juróom-ñaar amul fooy teg sa tànk lu yem ni sebre sebre mooy ndëggu lu dul iblis sujuutal na fa borom xoolal loolu sëñ Souleymane loolu yéeme na mu ne amul fu fooy teg sa tànk ci asamaan lu dul iblis sujuutal na fa borom boobu tuddul iblis mu ngi tuddoon Azazil Azazil mooy turu aslom ma mooy turu wi ko yàlla joxoon muy ànd ak malaaka yi di di circuler nekk seen dirigeant. jiite leen xam nga pouvoir foofu la yem bokk ci kooru nekk jinne bokk jaamu yàlla ba yàlla boole la ci kooru malaaka yi nga di leen jiite di doxi service fa la pouvoir yem fa la pouvoir yem ah yonent bi nee na amul fooy teg sa tànk lu dul iblis mos na fa taxaw sujutal boromam amul c'est mooy nii ndëggu rek mooy ndëggu tànk ndëggu tànk mat na c'est waaw ànd ak loolu yëpp ki yàlla tax ki ki tax yàlla dégradé ko mooy ñun ñun ñii ñoo tax yàlla dégradé ko kon kon ñun dellooguñu yàlla njukkal de delloowuñu yàlla li mu moom de xoolal iblis lim defal yàlla te ñun ke naafi la bu mat sax mënoo ko waxtu yi juróom sax da koy cumuler ak kii lim defal yàlla ba yàlla boole ko mu ne ci malaayika yi caabi àjjana yor na ko soixante-dix mille ans juróom-ñaar fukki junni at iblis lépp li may wax yëpp a ngi ci téere bi soixante-dix mille ans yor na ko caabi àjjana di tëj di tijji yàlla xëy nangu ko ci loxo na nit ñi déglu bu baax li may wax te maa ngi leen koy ñaan soixante-dix mille ans yor na ko caabi àjjana di tëj di tijji jiite malaayika yi ñun ñoo tax yàlla dégradé ko ba mu nekk zéro delluwaat zéro nekk yéefar ndax bi yàlla bindee maam aadama la ko ne sujuutal ko mu lànk Serigne si Ahmad Tidiane si almaktum nee na keroog yàlla boole na ñaar yu mënta ànd bu du toon yàlla du ko mën a boole mu ne lim nekk yàlla rek a tax mu mën koo boole mu ne ñaar yi mënta ànd mooy lan ñewent na iblis ndax lim ko liggéeyal waaye jéppi na ko ndax lu lu tax buur bu day ni moom sant ko mu bañ <laughs> mu ne njéppite ak ñewent la yàlla boole foofu mu ne moo tax sax mu toog di dialoganteeg moom mu ne ndax cofeel ga waaye njëppite gaa not nag ndax buur bu day ni yàlla sant ko mu bañ xam nga noo koy déggee sa doom bi ci biir kër gi rek boo ko yónnee mu bañ nga ut yar mu jaral la lu ne ngay xeex ak moom <laughs> yàlla mi bindi jaam yi nag sant la nga bay xool ko rek neexul neexul sa doom bi ci kër gi rek ne léng léngaral boo ko yónnee mu bañ rek nga àttana xeex ak moom léegi yàlla jéppi ko waaye ñëwent ko ndax li mu ko defal te yàlla du sakk jëf wax ba mu ko wax rek nga ngay xamee ne ndeysaan daf koy daf koy ñëwent maamana aka iblis maamana aka lu la xiir ci lii yow it maamana aka lu la xiir ci lii lu xiir ci lii iblis lu la xiir ci lii masañta masant la nga bañ waaye gis nga réy réy lu tamit li muy yóbbu nit mu ne ko anaa xayrun min maa ko gën yàlla na ko ngeneel fii la nekk nag ngeneel ci sama loxo la nekk bul waxati loolu mu ne ko maa ko gën mu ne ko xoolal yàlla patience bi mu am bind jaamam di toog di dialoganteeg moom te mën ko écraser ci benn seconde bi mu ko laajee maama na aka lu la xiir ci lii iblis ne ko ana xayrun minhu maa ko gën yàlla na ko ngeneel ci sama loxo la ne wa anal fadla bi yadillahi yuutihi man yasha ngénneel ci sama loxo la nekk maa koy jox ku ma neex mu ne ko ay maa gën mu ne ko ci la léegi nooy def ba gën mu ne ko xalaxta ni min naar man ci tàkkal-tàkkal safara nga ma bind wa xalaxtahu min tiin moom nga bind ko ci ban bii nga xam ne dafa ñuul kook nga naan mën naa ko sujjóotal kooku duma ko def yàlla ne ko te sax nga ci ba doo ko def mu ne ko loolu jarul ngay continuer duma ko def mu ne ko uxuruj min na ci la ko yàlla dooro a joxoñ nag ne ko uxuruj min na fa innaka rajim acca génnal ci ñun yow ku njam nga boobu iblis kap la sol moo tax islaam sol sib kuy sol kap bi muy génn àjjana kap la sol moo tax bu dul service rek bul sol kap bi muy génn ah bi muy génn ci pays yàlla ba kap la sol rek dëngalu bi ko yàlla ne uxruj min naa nag mu dem ba mu yàgg taxaw ne ko ak li ma la liggéeyal ak li ma daj ci sa pays bi ak li ma daj ci sa service nga xëy rek def ma nii ki nga ma jëndee jaru ko de yàlla ki ma jëndee jaru ko yàlla na ko lu tax mu ne ko baax na lu lay naqari ëllëg moo la koy teg <laughs> lu lay naqari ëllëg ci kii lay jóge waaye jox ma samay droit ma door a dem gis nga iblis ko am fayda la jox ma samay droit ma door a dem moo tax ko dàq ci service sax war nga ko jox ay droit moo tax senegal dañuy fo rek licencié nit doo ko fay ay droit am dàq nit noonu doo ko fay droit am ndax yaa ko ëpp doole ah di liggéeyloo nit stage stage quatre ans stage cinq ans stage six ans stage dix ans stage kañ dafa war a am limite Sénégal balaa ñu laa jox CDD sax nga dee CDD rek balaa ñu la koy jox nga dee CD yi moom waxe noppi man li may wax nag du neex du neex parce que man dama fi toogal ñëpp toogaluma fi kenn yàlla laa fi toogal koo liggéeyloo da nga ko war a fay àqam CDD waaye waaye stage am na limite te ñii stage ñoo gën a dee ay trente mille francs lañ leen di jox cinquante mille francs loo xam ne matul sax paas matul sax paas te yow directeur de service bi ko koy jox sa yaram du daw sa yaram du daw yaa ngi dawal oto bu lix yaa ngi am kër gu lix yaa ngi ci compte bancaire bu duun di ko fay trent mille francs muy xos-xoslu ci njaga yi di dem di dikk te balaa nga ko jox ay baqataam ne bàcc ci biti wala mu génn di grève nañ seetaat réew mi doxul réew mi doxul moo indi yii stage loo nit pendant des années stage pendant des années xam ngeen ne ci loi mënul nekk juridiquement mënul nekk man lu ma wax nag xam naa ko ndax lu ma xamut it dama koy laaj ña ko xam fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun laaj leen ñi xam su fekkee xamu leen man ci laa dëkk moo tax lu ma wax xam lu ma wax xam rek naa ko wax nañ nañ dimbale ñi stage nañ leen dimbale nañ leen dimbale nañ leen yërëm trente mille francs lu muy jëriñ nit pendant un mois muy xëy di ñëw amul ci yow lu dul trente mille amul ci yow lu dul cinquante mille sëriñ amul ci yow lu dul cinquante mille francs te balaa moo balaa nga ko koo jox mu daw a daw a daw a daw a daw ba ñaq ngay gas gaspiller alali réew mi te la tax nga nekk directeur de société du yow réew mee ko moom du yow réew mee ko moom te balaa ëllëg nga jóg fa keneen toog fa nga rendre compte yàlla ëllëg station nit pendant des années di ko fay cinquante mille sa yaram sax du daw sa yaram du daw xanaa doo gor xanaa moo yërmande xanaa sa xol du jooy xanaa xalaatoo bàmmeel bés dana ñëw yow ma tur yow yow ma turjauna fiihi ila suma tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun mbokk yi nañ bàyyiwaat xel àddina dañ ko bàyyi xel àddina du kër ku ko def kër amoo kër àddina du kër àddina gu kër àddina du kër ana alaaji maas mbeng mu baax mii lu ne def na ko ci diine li mujj a defal alaaji tafsir gay mii mooy gasal ko forage te teen la ko tafsir doon ñaan ka gasal ma teen pour daara ji mu ne ko yow duma la defaral teen forage laa lay defaral waaw dem na dem na dem na bañ denc ko bu ay milliards doon téye nit du dem ca këram la ko fekk sax Canada génneewut àddina fii këram Canada fa la ko fekk fa la ko dee fekk kii ñaan kii ñaan teen ñu may la forage xam nga ni kooku baax na te forage ba mu tabaxal ba mu defaral tafsir tund wa yëpp mën nañ ci naan kooku moom loolu rek bu ko fa fekkee tabaarakallah loolu rek bu ko fekkee fa mu tëdd billaay dana dana rëccu lu mu defootu defee wutoon ay forage yi forage ndax loolu rek moom mën na ca dund ba ajjana taxaw yàlla fay ko fay ay sëtam ay sëtam laa wax de sax yàlla mën na leen a fay ci loolu forage boobu mu gas ngir lislaam yooyu de moom mat naa sonn moom yooyu moom ku am alal borom alal yi maa ngi leen di interpeller def leen seen alal yi ci yoonu yàlla bu ngeen ko deful ëllëg di ngeen ko rëccu waaw ku mel ni Mass Mbengue bii nag ah moom du rëccu dara ndax léppam diine la ko jox dama ko xam bu baax nag waaw dama ko xam bu baax xamantuwuma ko lépp ci diine la ko def kiñ ko bàyyile woon ñaari doomam yëpp maa leen tudd muy Saadiya Sarr ja soxnaay Birima Fall ñu nga fële ñu affecté leen ca euh, Côte d'Ivoire tabaarakallaa kon li ma wax xam naa ko doomam bi ma mujj tudd euh, maa ko maak Maas Mbeng ak sayit Géey ba la ñoo fa nekkoon waaw Maas Mbeng nga fa keroog muy ku mën a sonn ci lislaam ku mën a sonn ci diine ku mën a taxaw ci lislaam ku mën a taxaw ci diine yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko te dafa àjjana muy waayam ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko fekki ak ñëm fekki di ñaan yàlla yi tafsir mi nga xam ne xaritam la woon léppam la woon mook Chérif Mamine eh, yal na yàlla wuutu leen fa leen maas mbeng wuutu woon waaye ñoom it fa ñu wuutu woon maas mbeng yal na leen fa yàlla wuutu wuutu wuutu fa maas gis nga mbokk yi réew mii nañ ciy wax ñun ñëpp ñoo ko bokk yii may wax nii nag xam naa danañ ne lii ku ko ko sant kenn santuma ko dama bokk ci dëkk bi xam dëkk bi xam li xew ci dëkk bi ndax dañuy ñëw ci man di ma jàmbat di ma ñaan loo donte mënumaa ñaan léeg ñu ñëw ne ma xamoo diw ma ne leen man xawuma kenn ku ma xamit duma la demander service ndax koo demandé service mu demandé la leneen moo tax man du ma demandé service xëy na ci lu mënta ñàkk waaye nañ bàyyi di stage nit ñi foofu laa koy jeexale Iblis dafa taxaw ne yàlla fay ma samay droit ak li ma la defal yëpp yëpp yëpp yëpp nga nar ma nii rek ne ma demal faxruj min na mu ne yàlla loolu day yomb bu dee yàlla nga fay ma ah yàlla nag bàkku ne ko may yàlla piir loo bëgg lool <laughs> ah, loolu la baat boobu la jam yàlla bu dee yaay yàlla fay ma ndax li ma la liggéeyal du neen yàlla bàkku ne ko may yàlla loo bëgg te benn baat rek la la jam yàlla de fa bi izzatika baat booboo baat booboo pompe yàlla <laughs> baat booboo pompe yàlla daf ko xam dafa yàgg ak yàlla gis nga ñett yi ngeen bal màq yëpp ci thème bi la rek ñett yi miin yàgg ak yomb ku tardé moo la tardé miin yàgg yomb miin yàgg yomb ku tardé moo la tardel moo lor iblis lii rek lii rek a lor iblis te ku am problème rek lii la ko indi muy kër sëriñ bi muy fu mën a doon nag muy service bi muy sa directeur général muy pré ku mën a doon rek moo lay koy yi miin yomb ak yàgg waaw miin yomb yàgg moo rey iblis ba mu dee miin bi mooy lan miin na kër yàlla bi ruq yëpp xam na ko gis nga taalibe bi bu miinee kër sëriñ bi di tàppanteeg soxnaay sëriñ bi doomi sëriñ bi dootul respecte sëriñ bi li may wax ñun ñëpp xam nañ ko miin iblis dafa miin kër yàlla xam nga ku dem bi jiite malaayika yi asamaan amul fu fooy sujut te te te iblis sujutalu fa boromam kon miin na kër yàlla pays yàlla yëpp iblis di ko folote wax nañ ne arsh rek la yeggut boobu lañ xam ne it yàlla am na lum naar booba lañ xam ne yàlla am na bi te dina ñëw ci wax bi léegi baati aouzu billahi mina sheytaani rajim lay firi nii diggante boobu yàlla moo mën xoolal foo dem ci asamaan iblis sujjuutal na fa borom waaye bi ko yàlla dàqee nag këram mu xam ne yàlla mii caaxaanut ndax yàlla du caaxaan mu ne ko fay ma samay droit fay ma samay droit bàyyi leen leen ci lañ bokk di picc yi ci lañ bokk di dañuy déglu ñoom it ah, ci lañ mbokk di dañuy seetaan ah. bu leen leen dàq de bàyyi leen leen tabaarkàlla ah <laughs> kon ñu weddi suñ bopp li ñu li ñu fi wax léegi kañ boo dàqee picc mi rek yàq nga yëpp li ñu fi wax yëpp ko yàq nga ko picc dañuy déglu dañuy seetaan kañ bàyyi la ñu seetaan déglu buñ paree dem ñibbi <laughs> jiwut dara ah nga xool diggante boobu fi ko yàlla dàqee mu ne yàlla ki nga ma jëndee jaru ko miin kër yàllaa ko ko indi miin bi mooy fu ne xam na ko ci roq yi fu ne dem na fa ba mujj gi kër yàlla daal moom xam na ko xam xam iblis mooy aarif billaahi bi gën a rëy loolu la nit ñi xamul booy laajte aarif billaahi bi gën a rëy mooy iblis waaye moom aarifam dafa jàdd xam yàlla tax mu am li mu am boo xamuloon yàlla nekkul avocat bu baax du dem ak résultat moo plaideel bopp nekk avocat boppam te xam yàllaa ko ko may ba yàlla teg ay droit am ci loxoom mu ne ko orowaa léegi def naa la faas loolu la wax yàlla de def naa la faas xam naa la te def naa la faas yàlla ne ko wéyal mayit safoo ma baat boobu rek la ko yàlla safoo ma lu ne ngi ci biir nag safoo ma <laughs> moo tax wolof di wax ne soof a gën a bon ci li yàlla bindee <laughs> gis nga boo fexee ba soof nit ñi <laughs> dootoo jar dara <laughs> te yàlla baat boobu rek la dóor iblis safoo ma ndax xam na fa muy mujj safoo ma iblis terewul rek mu ne ko baax na waaye may def naa la faas ndax ki nga gën a bëgg ki nga gën a bëgg nga jëndee ma ko danaa ko détourné benn baat la jam yàlla nag yàlla fudd mooy fa bi izzatika maa ngi génn ci sa tedd nga yow yàlla yàlla ne ko ah xam nga ne kon maa tedd mu ne ko xam naa ko ni loo bëgg léegi mu ne ko nga bàyyi ma fi may dund rek éternellement ba ba ngay tukkal àddina bés bi ngay wal bufta bi sax na fekk du ma dee de damay àndaaleeg bufta bi rek dem ndax bëgguma benn nit des fi di ma échappé ndax dama la lancé guerre ci kooku muy kooku ngi wax aadama moom laa la lancé guerre moom nga ma jëndee te jaru ko yàq sama lëpp te jaru ko usjudu li aadama moo ko indi malaaka yépp waaf foofu nag laa doon wax démb baatu jaamu jëmm ji lañ koy def wala tur wi kay baatu alhamdulillah ak baatu jaam dama ne dëgg-dëgg sant yàlla mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla moo tax julli mooy dëgg-dëgg sant yàlla xam nga preuve bi foo koy gën a déggee boo tisoolee tey nii danga war a wax alhamdulillah ñu ne la yarhamuka allah nga ne yaxfirullahu lana wa lakum moom la maama aadama defoon ba ko yàlla bindee malaaka yi yàlla ne ko sant ba mu ne alhamdulillah malaaka yi ne yàlla dell yàlla ne malaaka yi delloo leen ma ko ñu ne ko yaxfirullahu lak euh, mala malaaka yi ne ko yarhamukallah mu ne yaxfirullahu lana walla ko fa la jógee bi ko yàlla bindee moom maama Adama ba roox bi ñëw ba ci boli gi bi mu yéegee ba ci nampatal bi fa la tissooli jóg toog ndax bi mu ko defee min salsaalin min xama in masnuun ban daf ko njëkk a def ci ban bu rëmbax ci poto poto xam ngeen poto poto waaw poto poto la ko njëkk def mu rëmbax noonu mel ni tiga dege waaw pour ñi may dégg mel ni tiga dege mais boobu dessin baa nga fa desin bi yàlla soxla ni mu bëgg aadama mel mu nga fa mais poto poto la rëmbax waaw waaw mu ngoog di bu déeg fe feree ban boobu ñi waa ndakaaru xamuñ déeg neel tiga dege rek déeg mooy dex <laughs> bu dex bi fere ban boobu nga xam ne boo ci dëggee sa tànk sax mu mu nuur noonu la meloon maam aadama mais desin bi mu nga fa woon dessin baa nga fa woon yàlla bàyyi na ko loolu pendant dix mille ans dix mille ans fukki junniy at ci ati yàlla la ko fa bàyyi mu nekk ban mu soppi ko def ko min salsalin min xama in masnun mu yebal nga ngelaw mu mu lu mel ni ngelaw mu ëf ko mu wow bi mu wowee boo ko fëggee mu am son moo tax ñu ne min salsal min xama in masnun dafay am son son boobu dafa am lum lay jox min mazamiril jin jannati son boobu rek min mazamiril janna ndax loxo bu tedd bi muy suñu borom moo ko dessiné loxo bu tedd bi suñu borom moo ko dessiné mun yàlla ne min salsalin min xama in masnun fa iza sawaytuhu ba ma noppee ci moom ci <laughs> yàlla mën a wax ndax moo bind wax mu ne bi ma noppee ci moom ci loolu rek fa iza sawaytu fa nafaxtu fihi min ruuxi bi ma paree ci salsal xama in masnun rek mu ne ma dawal sama roox looloo tax nit garaaw moo tax ibliis di dof fa nafaxtu fiihi min ruuxi ah moo tax nit du dee xamu yaramay dee waaye nit du dee rox day delluwaat ci borom boo doon dee àjjana ak safara du konte ndax rox bi lañuy ñuy mbugal yaram bi ràpp na bu yàgg ki dee ci lakk na ah ñii ñii ñuy insiné nga xam ne dañ leen di lakk bañ kii ndax mooy ñi dee ci corona bi extérieur ñañ cay lakk kon kon fu muy féete ba àjjana ak safara ah nañ waxante dëgg rek waaw kiñ dugal ci bàmmeel nag pendant des années sax yi lekk lekk yi suux wa yàpp wa yax yi suuf lekk ko boo gasee bàmmeel bi doo gis dara wala quelque yax rek nga fay fekk te buy nekk ci bànneex mu nga ca bànneex buy nekk ci mbugal mu nga ca mbugal kon ku ñuy mbugal roox bi ndax roox du dee samaniyata asiya samaniyata yam na ñett yoo xam ne duñ dee roox du dee yaxu yamar kii ci nit du dee boo ko bëggee xam mooy ci mooy sarpañ ci gaal gis ngay lu nit ki ràpp ràpp ràpp yàq boobu du ràpp bu dee dafa sedd ngeen wàññi ko de lu nit ki ràpp ràpp ràpp yàq boobu du ràpp mukk gis nga asraafil bi yor bufte bi di wal roox yi buy wal son bi day ànd ak yax bi fu yax buy yax boobu nekk rek bu déggee son bi rek ne bërët mooy dekki yonent bi nee na bi may rañaan maa ngi ko romb moom asrafil ca gannaaw màkka ne na falaa ko romb ci benn montagne mu ngi yor ngéléer gi mooy flûte bi sex ko xulli bët yi yaakaaroon naa ne balaa maa wëññeeku dinaa fekk mu ëf yonent bay wax de man waxuma mu ne position bi ma fekk bi ma ko gis mu jël man rasulullahi foogoon naa ne balaa maa wëññee ko dinaa fekk mu ëf pour àddina tukki nee na bi ma wëññee ko ma laaj ko ne ko position bii nga jël bu radical bii lu tax mu ne ko bañ rek mu bett ma ndax ndigalal borom bi rek laay xaar mu ne ma ëf ëfal buy ëf rek àddina bi yëpp jaxasoo écrasé ci saa si boobay ëfu benn bi ëfu ñaareel bi nag bu ko defee ci la nit ñi di dekki diggante ëfu benn bi ak ëfu ñaareel bi quarante mille ans la ñeent fukki junniy at ci ati yàlla yi waaw waaw ca ca yaasin waxaat ko in kaanat illa sayxatan waaxida fa ida hum jamiun ladayna muxdaroon boobu mooy ñaareel ba mooy ñaareeli ëf bi ñaari yoon rek la koy ëf pare na ci ëf bu njëkk bi mooy faagaagal li yàlla bind yépp ci kaw suuf ba mu des dénd bi laa tara iwajan amtan wala iwajan yàlla nee na doo gisati montagne doo gisati dex lépp nekk benn dénd la tara fiha amtan wala iwajan dootoo gis dex dootoo gis montagne lépp day nekk benn bu xesee ëf rek jeex na léppay écrasé wu nekk benn dootoo gis fu fu dëng walla fu am xur wala fu am montagne suñ borom nee na léppay ne ñareet nekk benn asamaan mel ni lu tappaloo ak suuf hmm, yàlla yàlla am na de Mm, yàlla am na de foofu nag foo eh, ñu dem ba ci kanam tuuti dina feeñ iblis foofu lay foofu la jaar yàlla bi yàlla bindee maam aadama nag tisli maam aadama tisooli looloo indi boo yow boo tisoolee da nga war a wax alhamdulillah boo ko waxul am nga bàkkaar ki dend ak yow it daf la war a wax yarhamukallah ni ko malaaka yi waxee woon maam aadama yow it nga delloowaat ne yaxfirullaahu lana wa lakum wala boog yaxfirullaahu lana wa lakum wa yuslihu baalakum yooyu yëpp bu mu ci doon baax na ñaari riwaaya la waaye loolu yëpp li muy am am am bu dee ci biir julli di lay woon ni dëgg-dëgg julli mooy sàbbal yàlla dëgg-dëgg julli mooy sant yàlla li la koy won mooy boo tisoolee ci biir julli dañ la ne bul wax alhamdulillahi demal ca laxdari du loolu la la laxdari jàngal a ah, jeex na boo tussee lay boo tislee ci biir julli doo wax bul soxla woo di wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax yaa ngi ci jëmmi alhamdulillahi rabbil alamin yaa ngi ci acte bi tax ñu ne la bu ko wax soxlaatut yaa ngi ci jëmmi alhamdulillahi rabbil alamin moo tax ñu ne la soxlawul nga di ko wax laissez kañ boo koy wone day fekk ànd ak escorte <laughs> ah waaw boo ànd ak escorte looy looy looy wone laissez passer escorte mota flèche baa ngi jiitu motard baa ngi ci kanam ot sa oto ngi ci digg bi looy wone euh, laissez passer gars yi kañ dañ naan acca rek euh, oto yëpp la ñuy xàll sax yow nga jàll mooy yaa ngi ci acte bi moo tax soxlaatul ngay wax alhamdulillahi rabbil alamin looloo lay woon jëgg dëgg dëgg sant yàlla mooy julli ñu delluwaat tuuti ci euh, aouzu billahi mina shaytaani rajim léegi nag bi mu des iblis ne yàlla kii yàlla ne ko wax ma nag lu tax nga ne kii jaru ko mu ne ko tuurkati deret lay doon kii reykati nit lay doon moom aadama mii mu ne ko naafeq yëpp ci moom la ñuy jóge njaalookat yëpp ci moom la ñuy jóge sàcc si yëpp ci moom la ñuy jóge fenkat yëpp ci moom la ñuy jóge kii ka muy jur ëllëg lu la yi ci àddina bi moo la koy teg yàlla ne ko xam naa ci loo ci xamut mu ne ko lan mu ne ko am na ci ndiggam ku ñuy wax muhammadan lu ma neex ñu def te ma baal leen laa ñoroon yàlla nag loolu kese mooy ñoroon yàlla yonent bi rek ko fa ñoroon moo tax bi mu digalee xalima gi nuun wal xalami ñu dellu ci kaw tuuti pour dégg baat baat bi ba mu nee nuun wal xalam ba mu ne xalam bi bindal dafa commencé di bind li yàlla bëgg yëpp xalam bi di ko bind bind yëpp yëpp yëpp yëpp ci benn fraction de seconde ba ñëw ci xeet yi di bind xeet yi seen bàkkaar yi di bind bi mu yekk see ci xeetu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa di bëgg a bind rek yàlla ne ko amal teggin moo tax mu xar ñaar moo tax xalima di xar indi rek moo tax xalima di xar boo ko xarut doo ci bind <laughs> yàlla ne ko tegginul mu tiit rek ba xar ne tekk <laughs> ne tekk moo tax xalima di xar ah, moo tax xalima di xar bi mu ko ko waxee rek xalima gi dafa tiit bi xar ne ko yaa bi yaa rabbi mu ne ko lan mu ne ko lan mu ne ko tegginul xeet woowu nga bëgg a bëgg bind seen bàkkaar mu ne ko xeet woowu nga bëgg a bind seen bàkkaar ummatun muznibatun waaye wa ana rabbun ghafuur <laughs> ah yonent bi kenn du moom ah, nañ dalal xel yi ñun ki ñu am kenn amu ko ala ko jullit bu dee ajjana rek bu ñu kenn yaa bu ñu kenn fontoo jullit dee ajjana rek kenn mënu ci dara jullit laa wax nag waaw waaw waaw bu dee ajjana rek eh, cheikh bi ah kadam kadam maa ngi jéggalu nag bu baax da ñu fekk rek ci jalti jalti yi waaw ah, kañ kadam kadam ñu déggante dégg ngeen baal ma nag yéen ñiy seetaan mënut a ñàkk léeg-léeg waaw ah, ndax soppe bu ñëwee ci yow rek am na nooy doxalee rek mën na la fa jaaree bañ la ba faw waaw hmm? ah, mën na jaaree foofu rek bañ la ba faw waaw kadam tabaarakallaahu su ko defee eh, eh, yonent bi kenn du moom yàlla ne xalam cegginul mu tiit ba xar mu ne ko xeet wi nga bëgg a bind seen bàkkaar xanaa xamoo ki ci seen biir xanaa xamoo ki ci seen biir koo koy seydil wujudi ummatun xeet lañ woo xam ne musnibatun ñu mën a defi bàkkaar lañ waaye wa an ñu dajeeg buur boo xam ne ana rabbun xafuur man buur buy jéggale lañ dajeel loolu luñ def ma baal leen ci la xalam bi teey nag di bind looloo indi jullit buy def bàkkaar boo ko defee balaa ko malaaka bi di bind bii raqib ak atib balaa balaa malaaka bi ci càmmoñ di bind ndax bi ci ndeyjoor mooy kilifaam moo ko yilif mooy chefam balaa moo bind daf ko naan ndax ma bind mu ne ko bind ko buy bind bu woyof fii ak trois jours bu ko tuubul ñu xool ah? waaw ah waaw looloo indi pilim ñu xar ko hmm? yonent bee tax ñu xar ko di ay xaru ko salaay la a tax ñu xar ko dafa tiit bi xar léegi nag ah gis nga ko hein mu ne ko xeet wu bari bàkkaar lañ waaye daje nañu buur bu leen mën a jéggal ndax may seen borom te ruse naa leen kii muy sallallahu alayhi wa sallam moo indi nag ñun ñu di ñu muñandiku boo defee bàkkaar kii ci càmmoñ bëgg a bind atib raqib ne ko teeyal bind ko bind bu woyof bu amee trois jours te tuubul ñu seet ñu seet lay wax ne ñu seet soo amee ñetti fan tuuboo mu ne ko bind ko bind boo xam ne bu ëllëgee bu ko tuubee dinañ ko mën a gome te benn rek lay bind de bu dee yiw boo koy xalaat rek koy xalaat rek mu bind diis moom moom du la xaar de bu dee yiw wooy def moom <laughs> xam nga ségrégation ak camarade <laughs> ku ne amul da nax sa bopp rek bu dee yiw booy xalaat rek booy xalaat xalaat rek commencé na bind sa Sàmb dafa fas yéene naafe la léegi mu nga na la di jàpp te xamul ndax naafila bi di nga ko def wala déet <laughs> dafa fas yéene naafe la léegi pour jàpp mu nga na la di jàpp bind naa diis kiyee di ko xaar soo jàppee benn ashhadu laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mu ne diis nga ñëw taxaw istiqbaalul xibla mu ne diis te kàbbaaragoo di <laughs> boo kàbbaaree mu ne diis allahu akbar rek diis la nga ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne trente alhamdulilah moom trente la ndax laam trente la yàlla bëgg jullit ndax yonent bi ah nga am 70 te dama koo fen ci ngay déggee nag la yàlla wax ca saar wale miatu xabbatin fi kulli sunbulatin miatu xabba yéegi am nga 70 te dama koo fen loola dese du 30 booy sëlmal ñu jox la 30 nga am 100 moo indi baaqiyaatu saalihaat la laa ilaaha la muy 100 <laughs> booy seulement nag ñu def la jox la 30 muy 100 nga def baaqiyaatu saalihaat pour mu kase ko baaqiyaatu saalihaat day kase 100 bi moo tax muy 100 30 33 33 33 du 99 nga ne laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharika lahu muy 100 yàlla ne kase naa ko malaaka yi yóbbu leen yàlla jaamam yi rek la bëgg de ah kii moo yilif kii moom waxam moo gën a valable waxu kii dinaa foofu bu ma ci dellusiwaatee nag laay potoxlu na ñëw ci tem bi alhamdu bi laay laay laay jox cëram rabbil alamina bi bi ma firiwul démb moom laay jox cëram te mënoo tëb rek ne rabbil alamina foog nga indi basmala aouzu billahi mina sheytaani rajim yàllaa ko santaane ciy jàngal xuraan la foog nga moo tax ma tëb rek ma jaaree ko noonu pour kiy déglu ak di seetaan léegi nag alhamdongo léegi mu des rabbil alamina mboolem xeeti cant yëpp aji sax dàkk la ñeel buur bi ñuy wax yàlla buur bi ñuy wax yàlla gis nga li tax rabb am solo dafa boole ñetti piri rab dina firi borom kër rabb dina firi buur rabb dina firi eh, yarkat bi kiy tarbiya dina firi kiy tarbiya ñett yi yëpp da koy firi rabb daar mooy borom kër Sidi Mbay huwa rabb daar mooy borom kër gi hmm? fa lillahi al alhamdu gis nga delsi na fa lillahi alhamdu rabbil déedéet fa lillahi alhamdu déedéet rabbi samawaati wa rabbil ard rabbil alamin fa lillahi alhamdu del si waatut alhamdulillah fa lillahi alhamdu lu ci topp rabbi samawaati wa rabbil ardi rabbil alamin lu tax wa lahu alkibriyaau fi samawaati wal ard wa huwa al azizul hakim ci yàlla yal nañu yàlla may boppam yal nañu yàlla may boppam ak cafkaay xam ko cafkaay mos ko cafkaay yëg ko yal nañu ko yàlla defal ku ko yàlla defal rek deseelatu la dara cafkaay xam yàlla cafkaay mos yàlla cafkaay digg yàlla ku ko yàlla defal rek deseelatu la dara yàlla nañu ko yàlla boole defal nag ñun ñëpp ak ñiy déglu di seetaan ñëpp moo tax ma wax la sànq iblis xam yàlla ak a xam yàlla ak a xam yàlla waaye amul yàlla nag loolay différence daf ko xam amu ko <laughs> ah, sew sew bi nag waaw boo ñaar yi nag rëcc xam yàlla am yàlla waaye boo defee xam yàlla kese te amoo yàlla perte nga ndax Iblis la ko gën a xam malheureusement dafa xam yàlla te amu ko boo xamee yàlla am yàlla nag rëcc nga loo defeti mu neex yàlla boobu ngay doon nag murabbi boobu ngay yegg nag ci cheikhu murabbi da ngay am yàlla xam yàlla waaye boo xamee yàlla kese perte nga ndax Iblis la gën a xam yàlla moo lay conduire fu ko neex mu jaarale la boo xoolee gel bi mu ne la jëlal sa gel la yaa ko moom daganalal la gel bi <laughs> li may wax xam ngeen ko sàngara si mu daganalal la ko tux mi mu daganalal la ko te danga koy laykat waaye layub ibliis ngay yor bu booba waaw ah, layub iblis ndax iblis waliyu la waaye wali yu saay-saay la moo tax ñu naan waliyullaahi wala waliyu rahma waliyu yàlla bi waliyu seytaan ñaar yëpp dafa am dafa am waliyu waliyu rahman ak waliyu seytaan boo boo xamee yàlla kese nag te amoo yàlla waliyu seytaan ngay doon sàngara si nga naan iblis daganalal la ko jox nga may lu la neex nga ciy def iblis na la ko boo ay boo xamee yàlla am yàlla loolu lay différence bi iblis daa xam yàlla te amul yàlla ma joxaat la beneen exemple terre pour nga mën ko dégg yow mi may seetaan pour niveau bi ñun ñëpp xamuñ Macky Sall président Macky Sall ñun ñëpp xamuñ ko fii ñëpp Sénégal ñëpp xam nañ ko mais ña ko am ñooy moo mooy bokk pale ba ña ko am moom ñoom ñooy diisoo ña ko am mook moom ñooy bokk di collaborer di def la ñuy def ña ko am nag bari nañ moo tax nga bul gis kenn rek ñu ne directeur général daa am président moo tax ñu nommé ko ko <laughs> député APR yëpp dañoo am président ndax liste bi dañ koy won président ba pare léeg mu ne rocci leen kii defal leen ma ci kii ku ko ci neexul mu génnee la Hmm? waaw ña ko am ñoo moom ñoo bokk état bi ñoo bokk gouvernement bi gouvernement nag dafa rëy ñoo bokk lépp moo tax gouvernement yàlla dafa rëy moo tax boo amee yàlla nag poste bu ko neex mu jox la ko moom yàlla ndax mooy nommé bu boobaa nag poste bu ko neex mu nommé la koo ah, kookoy yàlla mooy am yàlla boo xamee yàlla ba noppi da ngay am yàlla boole ci boo boolee ñaar yëpp nag rëcc nga yàlla nañu ko yàlla defal moo tax rabbil aalamiina mooy borom mbindeef yi buñ nee mbindeef mooy kum bind moom rek moo la moom kum bind rek moo la moom te ñëpp yàlla leen bind ku yàlla rek yàlla la bind ah moo tax mu ne rabbil aalamiina awaalim yëpp la ci namm cent vingt quatre mille monde yëpp nee na maay borom man yàlla te 124000 yooyu Cerno Yaxya li rahmatullahi lay war a di anhu moo ma wax ne ma baaba ma ne ko ah, mu ne ma àddina ak àllaaxira benn monde la du ñaar te maa ngi ko diggee ci woyu sëriñ Cheikh bi fa ilayka yabna Muhammadin naadaani bi sëriñ Cheikh wax dem na ba ca biir mu ne Cheikh na Tiijaan yi yaa feexe ba dimbale ñu seexale àddina ak àllaaxira ci biir woyoo yaa seexale àddina ak àllaaxira def leen ay seex ay cheikh lañ noonu nga koy déggee Serigne seex moo digg moo digg dëgg dëgg dëgg àddina ak àllaaxira ay cheikh lañ bii dafa nekk fii bii nekk fële waaye ay cheikh lañ ay cheikh lañ waaw comme guro rek ak xarit bi ŋàddu guro bii mooy fii bii mooy fii bii mooy àddina bii mooy àllaaxira moo tax benn monde la te monde yàlla yëpp nag booboo ci gën a tuuti Cerno na ne ma monde yëpp nag àddina ak àllaaxira boo leen boolee moo ci gën a tuuti moo àllaaxira fii la ne newul bàmmeel ne nit ñi dañ foog ne boo duggee bàmmeel ci biir bàmmeel fa la àllaaxira ne ah àllaaxira ngi fi moo tax néew yi di dem di ñëw fii fii ci kaw suuf bi la àllaaxira nekk marajal baxmayni yaltaqiyaani baynahuma barzax <laughs> marajal bahrayni ah ah jeex na waxal sëriñ ma dégg <laughs> waaw lu ma wax léegi marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yab laa yabghiyaani moo tax fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan yàlla ne lu tax ngeen di di sama xéewal yi fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan lu tax ngeen di di sama xéewal yi ma leen defal te xamu leen ne man yàlla maa fexe ba diggante géej gu neex géej gu naqade fa fa la barzaq nekk xam nga lu tax xalaqa kulla shay'in min al maa maa in xalaqa kulla shay'in hayyin min al maa afalaa yatazakkaruun jeex na bu wow waaw mooy barsax mooy buñ génnee li nekk ci moom rek mooy barsax jeex na barsax a ngi fii demut fenn moo tax nga mën leen a gis moo tax Serigne Cheikh dem ne bi tubaab yaa ngi def itte pour mën a wax ak ñi ci barzaq ñoom ni ko wali yu mënee ah Serigne Cheikh daf ci def gistu bu gudd mu ne w mu ne mu ne tubaab yi ñu ngi def itte pour xam barzaq nañ fay dundee parce que mu ngi fii ni ko wali yi di xamee noonu la ko tubaab bi di mu ne te danañ ko réussir nag ndax am nañ itti bi te ku am itti rek yàlla bàyyi la waaw yaa maasara jinni wal ins in istataatu an tanfuzu min aqtaari samawati wal ard fanfuzu waaye laa tanfuzuna illa bi sul illa bi sultaan illa bi sultaan fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazibaan wala ñaata yoon la ko yàlla wax ci saar hmm? <laughs> ñaata yoon la ko yàlla wax fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazziban 32 fois ñaar fukki fanweeri yoon ak ñaar xal bu ñaata la 132 dindil 100 bi 32 moo tolloog sa xol fa bi ay bi rabbikuma tukazziban moo tolloog sa xol ah <laughs> laa ilaha illa allah cee yàlla moo tax rabbil alamina mooy borom mbindee fii awaalim yëpp mooy borom alamu naasuut ak alamul malakuut yëpp alamul jabaruut yëpp mooy borom waaw alaa lahul xalq wal amr tabaarakallaahu rabbul alamin alamul xalq ak alamul amr yooyu yëpp ci awaalim yi la bokk alamul xalq ak awaalimul xalq ak awaalimul amr moo tax mu ne fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin dëgg-dëgg maa mën a bind nag waaw ah, yàlla ne dëgg-dëgg maa mën a bind ah xam nga moom moom rek a mën a wax ndax moo bind wax waaw mu ne dëgg dëgg dëgg man yàlla maa mën a bind xool boo xoolee ci yim bind rek di nga xam ne yàlla du morom waaw nit rek bu taxawee dëgg dëgg na naxul boppam taxaw ci seetu xool boppam dëgg dëgg xalaat wa fi anfusikum afala afala tubsiruun wa fi anfusikum afala tubsiruun yàlla ne xoolal sa bopp rek boo naxul sa bopp dinga ma xam man yàlla moo tax rabbil alamin mooy borom bindee fii de iblis nag foofu lay jeexale ci côté iblis nag ne suñ borom yàlla nag ne nit maa ngi lay lancer défi am na saay-saay bu ñuy wax iblis bu ma ko doglul de moo tax iblis nag ne yàlla dañuy def bilan maak yow bu jant bi sowee chaque timis moo tax timis la seytaane yi di wàcc wa jaala zulumaati wa nuur alhamdulillahi alladi xalaqa samaawaati wal ard wa jaala zulumaat wa nuur summa alladina kafaru bi rabbihim yaadiluun seytaane yëpp timis la ñuy wàcc moo tax mag ñi sax bu njëkk dañ daan bañ xale buy taxawaalu ci mbedd doxoo soxla ba timis jot danañ la dóor dóor yoo xam ne ba ngay dee doo ko fàtte waaw hmm? ah, parce que timis la seytaane yi di wàcc waaw mu ngoog mu ne salaay salaam sëñ Souleymane nee na yonent bi wax na ne salaay salaam xaafizu sibyaanakum baada salaatil maghribi na ngeen watta téye seen doom yi seen xale yi na ngeen leen téye ba timis passé waaw moo tax sax boo amee doom buy parental yi leen toll ci bootu bu timis jotee bëgg nañ nga boot ko waaw kooku nag Aminata Diop ak Yata Fall am nañ ci wàll dee leen boot dee leen boot waaw <laughs> dee leen boot <laughs> waaw leen boot de waaw comme yaayam moom mu nga fa Fat Dramé dee ci jàpp rek waaw muy boot timis Aminata Diop it nay boot timis waaw bu timis jotee sa doom da nga koy boot yooyu yëpp daf koy daf koy jox sécurité daf koy jox sécurité koy jox sécurité bu mat sëkk nag ba pare sa saleuru yaram bi heure boobu gàllaaj lay doon ci moom ndax heure boobu la seytaane yi di wàcc dafa am ceneer yuñ lay sànni yi ñuy sànni nag sa yaram day riposte di dégager ay leer moom it pour contre contrecarrer ko <laughs> yàlla ni mu bindee àddina bi moo doy waar <coughs> moo doy waar maa ngi koy wax démb ci basmala bi dama ko fàtte woon moom itam gis nga ki ma doon wax démb fàtte ko Tamsir la Tamsir ñang mooy magu cheikh yi xale bu teel a sotti dafa teeloon sotti Tamsir ñang moom la ñu yóbbu woon Jolof teel a sotti silwiise mën a jàng résultat yi muy am tabaarkalla tabaarkalla waaye rek boo teelee sotti teel a dem rek waaw teel a sotti teel a dem waaw njool yegg ca kaw silvissé te xale la boobu bi muy gaañoo est amul ay vingt ans vingt deux yooyu waaw mais teel a sotti rek teel a sotti ah baax na de waaye baaxut am na fu mu baaxee ndax boo demee noppalu waaye dinga ñàkk say mbokk say mbokk dañ la ñàkk waaw tabaarkàlla tabaarkàlla yàlla def gis nga la boobu li ma ci doon wax démb te fàtte ko salaatu ala nabi mu ngi ci biir basmala basmala mu ngi ci biir salaatu ala nabi moo tax salaatu ala nabi am doole ci rahmaani rahim arrahmaani ak arrahimi fa la salaatu ala nabi nekk ndax inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman tasliman jooju du jàmm la rahmaani rahim lan la boo ko bëggee déggaat laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi maa anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahim rahmaani rahim taara bi la yàlla dindi ndax taara bi moo ko jagoo taara bi mooy xaw ma naka naka divine la ko tubaab di wax existence divine moom la taara di dox te loolu yàlla rekk ko moom moo tax yàlla ba mu ñëwee ca laqad jaakum mu dindi alif ak laam bi ne raufun rahim waxul arrahmaani arrahim dafa dindi ne raufun rahim bële nag mu ne arrahman arrahim différence bi mooy yàlla moo moom lépp yërmande séddi ci yonent bi li ko neex loolay différence moo moom lépp yërmande séddi ci ru bi li ko neex yonent bi nag di séddi moo tax mu ne ana allahu huwa almuti wa ana alxaasim yàllaay joxe waaye may séddale boo demee ci téere bi nee na yonent bi salaay sallam pour nga mën a julli ci moom pour nekk jullit yàlla yàlla wicc na ci ñun juróom-ñetti yoon ci leeru yonent bi pour ñu mën a tudd yonent bi te fi ne balaa kenn di julli mën a julli ci yonent bi benn salaatu bu mu mën a doon pour nga yor kurus wala nga yàq ñàkk yor kurus ne allahumma balaa nga koy mën dafa am day fekk am na rayon leer bu jógee ca raw doom ba ca jëmmam ja ñëw dugg ci yow percé pour nga mën a tudd yonent bi wa illaa doo ko mën a tudd moo tax kenn jaamuwut yàllaay jaamu yàllaay jaamu boppam ci yow waaye jaamuwoo yàlla moo tax boo demee ci ba Seydil Xaaji Malik bi Maodo indi ca lu doy waar maa ngi bàkk buur bi nga xam ne tudd ko sax bàkkaar la <laughs> alaa bi zikrillaahi tasdaadul zunub loolu la ci jublu mu ne buur bi nga xam ne tudd ko sax bàkkaar la mooy xam nga looy noo koy déggee boo jàppee ne yaay tudd yàlla rek am nga bàkkaar ndax mënoo tudd yàlla yàllaay tudd yàlla ci yow yàllaay tudd boppam ci yow déclenché ci yow pour nga tudd ko manifestation divine fu ko yàlla def rek borom mën a tudd boromam waaw mooy man wa nafaxtu mooy man wa nafaxtu fiihi min ruuxi moo ko indi manifestation divine la yàlla def ci yow fum mu ko defit nga xam la fa ne kon kenn mënul julli ci yonent bi lu dul rayon yonent bi moo jógee ca moom ñëw ci yow pour nga mën koo tudd pour ñu nekk jullit mën a tudd yonent bi yàlla wicc na ci ñun juróom ñetti yoon huit fois leeru yonant bi pour ñu mën koo tudd pour mën a nekk jullit moo tax jullit du caaxaan looloo ñu indil problème yi jullit boo xeeb rek yàlla nga xeeb jullit boo xeeb rek yonent bi nga xeeb moo tax nga dégg Alaaji Abdou Aziz daan wax sëñ du daan wax ne yal nañu yàlla musal ci xeebaate waaw nga dégg mu ci daan wax yu baree bari kon nag mbokk yi alhamdu lañ doon indi li ñu ci yàlla xéewale muy rabbil alamina bi ñu tëjoon tëboon démb ci suñu ñàkk a teey ak ñàkk a teeylu maa ngi koy jéggalu yàlla di ko jéggalu ñëpp doon seetaan ak ñi doon déglu ñi ko gisoon nag ñi ko gisul yëpp ñu ngi leen ciy jéggalu dama ko tëboon te yëguma ko kon léegi mu des lii nga xam ne ci lañ war a wax doonte wax nañ ci yi ko jiitu yëpp sax ci moom la doomu aadama bi ko yàlla bindee daf ko bind ci man ak ci mën di njëkk bind dee door a bind dund boo demee ca suratul mulki muy tabaaraka alladi bi yadihi l wa huwa ala kulli cheyin qadir dafa dem ba ci biir mu ne xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakumu ayukumu axsanu amalan hmm? loolu nga xam ne nag moom la yàlla wax ne xalaxa dama bind almawta dee njëkk wal xayaata door a bind dund kon ku dund bénéfice nga am te dara xewagut ku dund rek am nga bénéfice te dara xewagut soo amee ñaari at am nga bénéfice te dara xewagut massa nag ñu ne am nga juróom-ñaar fukki at wala téeméeri at yii kooku bénéfice bu rey nga am ndax waroo woon a dund xalaxal mawta la wax di danga waroon juddu rek dee kon boo fi defee benn fan rek am nga bénéfice xalaxal mawta wal xayaata yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xayyi moo tax wa tarzuqu man tasha'u maa lay may fan yu ma neex bi xeyri xisaab bi ci lu dul condition ah ci lu dul condition man yàlla lu ma neex rek ma may la ko nga dund ko kon nit fi mu déparé ak yàlla moo sori wax naa ko démb li yàlla bind yëpp daf ko bind rek mu jóg doxi soxlaa ba des nit bitax bii di naaw nii buy judd ci tàgg mi rek ne fër dëgg la wala déet béy wii nga am ci sa biir kër wala xar mii nga am ci sa biir kër wala nag wi wala fas wi buy judd 30 minutes après nga gis muy commencé curpi jubali ween yaay ji nam bu amee ñetti fan nga gis ko ca gédd ba muy yéey ci ngooñ mi <laughs> dëgg la wala déet ah lu yàlla bind rek lu mu mën a doon nit rekk moo ciy juddu du mën dara min daafin jël moo tax yàlla di wax dama la judd ci télé dama la bind ci télé ak mën di min daafin suma min baadi daafin quwa suma min baadi quwatin daafan wa shayba yàlla dama la bind ci mën a di nga dem ba mu yàgg ma ma def nga mën mu ne nga dem ba mu yàgg yàgg ma rocc ci mën bàyyee la mën a di roof la bay jaaw di la annoncé <laughs> wa ba loolu lay firi mu ne wa shayba ak i bay jaaw moo tax bàyyi leen ñuulal bi jaru ko kawar gu weex sax bu ñuul da koo dàq wala bu ñuul dafa dàq bu weex amul yàlla bëggul kuy ñuulal di tente sa kawar ndax masque bejjaaw islaam sopp ko xaraamul nag yeggul ci xaraam waaye bàyyi ko sheybatul hamdi kañ lu ko dàq dara dàq ko xam naa nag gars waxuma kenn nag ñu baal ma waaw ñëw dafa dafa gaar ci biir waxtaan wi rek dafa gaar ci biir waxtaan wi wa sheyba yàlla ne ak i bejjaaw maa la ko roof maa la ko te yonent bi nee na foo gis bee jaaw rek xalaatal de ci màndargay dee yi la bokk doonte xale dina bee jaaw waaye lu tax mu bee jaaw nañ xool lu tax xale bi bee jaaw hmm, ñaar a koy indi xale bu judd ci tiitaange walla mu judd ci wilaaya moo tax ñàkk kàttan boobu yàlla roof nit daf koy jàngal manta an na naa la maata man na ku teey rek am li nga bëgg al ajlu ma cheytaan yàkkamti ak cheytaan ñoo ànd yàlla nii muy defee picc mi juddu rekk ne fër dem xar mi juddu curpi mënoon na ko defal nit lu tax defalu ko nit bàyyi xel nit la bëggit nit bàyyi ko xel dafa bëgg nit bàyyi ko xel yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal muminina aizatin alal kafirina yujahiduuna fi sabilillahi wala yaxaafuuna lawmata laimin yàlla dafa bëgg jullit bàyyi ko xel dafa bëgg nit nit tout rek nit la bëgg mu bàyyi ko xel moo tax foo dégg mu ne yaa ayyuhal insaan ñëpp lay wax yaa ayyuhal ladina kafaru boo ca bokkul bul wuyu <laughs> fu yàlla ne yaa ayyuhal insaan ubbil sa nopp déglu ko dafa ne yee yéen doomu aadama yi yéen lay wax ci du nga bokk yow doomu aadama nga maa xarraka lan moo la war bi rabbikal karim lan moo la wor lan moo la wor bi rabbika ci sa borom alkarimu bu tedd bii bind la ba lim la sant yëpp defoo ko allazi xalaxaka may buur bi la bind fas sawaaka ma yemale la ba nga yem képp benn loxo ëppul moromam baaraam yi nga mën a tibb ceeb dank ko fas sawaaka ndax baaraam yëpp bu ñu yemoon nii maase doo dank ceeb doo téye dara moo tax mu def bii mu tuuti bii dab dabal ko bii gudd bii topp ci bii gàtt ndukkuñ pour nga mën a téye dara Mm-hmm. nii muy bankoo pour nga mën a téye dara bu yépp yemoon doo ko mën mu ne fas sa waaka maa la yemalal lu la war lu la war ci diggante bi ah alal ju balee la lor moo la war moo tax nga waru alal ju bari moo tax nga waru wala succès walla ndombo tànk buñ la takkal wala turu riir wala famille diw sàngam juddu sàngam moo tax nga waru bul waru maa xarraka bi rabbika alkarim lu la war ci sa borom bu tedd bi la bind alladi buur bi nga xam ne xalaxaka moo la bind fa sawaaka mu yemale la xoolal boo taxawee rek li yàlla bind nit rek moo ci am taxawaay bii xamoo jinne comme taxawaayu fas la am ñeenti tànk lay taxawee li yàlla bind yëpp nit rek moo ciy tibb di lekk wala yor kuddu di lekk wala fourchette jinne gémmiñ lay lekke ñi bàyyi ma di lekke la jinne di lekke mënta tibb sex li yàlla bind yëpp tibb sex nit rekk a ko ciy def gisoo picc yi nu ñuy def cof xar gémmiñ nag béy gémmiñ ganaar cof li yàlla bind yëpp nit rek ci tedd bay jël di tibb di sex wala ut kudd wala ut paaka ak nit rek la ci yàlla teral moo tax wala xadd karam naa bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdilan nit rek a ko ci moo tax nit alhaji imam Moussa Gueye day faral di wax ni baayam suñ baay bu baax boobu wala Ousmane Gueye moo daan wax ni yàlla du mayee ndoor ñaar jekk ak yekku mu ne jekk la lay dox téyey jekku déggoo li wolof di wax diw jekk na ci ñaar rek la ko waroon di wax sañse ba jekk ñu ne diw jekk na wala yor dara ñu ne yow ko jekk la waaye fekk yàlla téyee jekku di la xaar bu dee ci sañse bu rafet yàlla téyee siburu di la xaar boo sañsee ba jekk di piccax piccax yi ñu naan la lalal naa la bés ñëw rek mu roof la si biiru perkal sax dootoo ko bëgg summil ma sama mbubb mi <laughs> ah jekkoo la la roof <coughs> waaw nga yor xaalis di cëppi cëppi ci kaw nit ñi ñëpp nga jàppee leen golo yàlla roof la jekkadi yàlla roof la jekkadi maa la ko wax mu roof la njëkk di loo ci mën ah wilaay eh, nuñ koy waxeeti ti pouvoir tax ngay cëppi cëppi ci kaw nit ñi ndax jekk la la yàlla jox mu jékki-jékki rek rocci moom moo moo yor jekku mu mu roof la jekku ñu folli la bu dee ab wali sëriñ ngay cëppi cëppi mu roof mu jël jekku roof la ñu rob la jeex na jekku la yàlla moom bàyyee ñoo jekk gisoo nit sax danga naan ñaw jekku naa ko tey ah, fekk jekku woo ko li wolof di wax moo la dal boo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot boo xamoon dee gi lay yoot dootal kenn loolu la wax bi di firi boo xamoon dee gi lay yoot dootal kenn moo tax nit nag ni ko yàlla bindee bind ko ci mënadi mënadi rek mu ngi déparé ci sperme muy mën yu lu moo tax wolof ni li sos nit yëpp boo ko defee ba noppi raxasu ji mën yu bu la laalee nga raxasu ji suñ la robee ba ñëw paan bi ci bunt kër gi lay ne <laughs> ña la robi woon ku ñëw raxasu ñaari raxasu yii na kum ji kum yéemut dara du la yéem diggante bi nag rëy xaju fi ah cheikh bi lu li ma wax du dëgg diggante bi rëy xaju fi fi ñu raxasoo maternité sang la ki la ki la réewle xam nga day raxasu ba noppi ñu yóbbu la sang la joof la ci ay laytaay ñëw jox la sa yaay diggante bi nga màgg fi rek beewo beewo ba xalaatoon ne beneen raxasoo ngi ci kanam bu la gaa yi yóbboo ci morgue bi sanga ba ba noppi raxasu yóbbu la ca armeel ya gaa yi dañ ci ba noppi paan bi ci bunti kër gi lañ koy teg ku ñëw raxasu buñ paree tuur ñaari raxasu yooyu xalaat nañ ci xalaat mooy lii ñuy waxtaanee mooy dee yàlla dee la njëkk a bind moo tax jarul ragal xam nga nuñ koy ragalee def dara waaw defal loo xam ne bu ëllëgee ci kanam yàlla doo rus boo ko teewalee ci kanam yàlla am dara loolu nag jëf la inna sa'yakum la shatta góor ak jigéen yàlla ne seeni mbir du benn mu ne waaye seen jëf yi nag ku ne nekk la nga jëf ngay laa lay fay wa anna al insana illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura yàlla na li nga jëf laa lay fay li ma lay fay di ci teg sa bët kon dañ koy mbëmastal rek nit ki daal fi ko yàlla bindee ak fi muy demee jarul bew bew jaru ko ci diggante bi walaw yu amara alfa sannatin wa ma huwa bi muzahzihi min al adab doo fi saxoon junni at du la teedee kon bew xaju fi xaju fi lii ñuy waxtaanee nag lu nit ñi ragal na ñi ciy sant nag bu baax alxaaji rawaan mbay le professeur rawaan mbay def na ci liggéey bu am solo moom ak le professeur kii Njaay xaritu imaam Moussa la ma moo jullee Baaba Gueye Mamadou Njaay waaw kañ moo jullee sa papa yow yow kañ boo ko fàttee àddina waaw waaw waaw astaghfirullah imaam bu Tiwaawoon bi moo ko jullee waaw le professeur Mamadou Ndiaye ak le professeur Alxaaji Rawaan Mbay ak Alxaaji imaam Moussa Guèye mii def nañ ci liggéey bu am solo le professeur Rawaan Mbay jiite ko quatorze régions yu Sénégal yëpp def nañ fa ay euh, séminaire jàngal nit ñi nu ñuy sangee néew sama soxna bale karimatu jaag bokkoon na ci ñi ko doon jàng ak magam astu jaag nit ñi boo koy jàngi sax dañ ne ak anta siise mii nekk amoo moo sang faama wàdd dañ leen ko di dañ leen koy jàngal ba noppi door leen a jox diplôme ñoom ñëpp am nañ diplôme bi waaw parce que ku ko jàng ba mën ko war nañ laa jox diplôme moo tax rawaan bay initiative yi muy def ji rawaan initiative yu tumaranke la nit ñi dañu ragal dee ragal dee ragal dee ragal dee ba booy wax lu ci jëm sax ñu naan su bokkum moom xaw ma ku mu ko yéene xaw ma nangam nangam mais day ñëw te nag boo ko jàngut doo ko xam moo tax ñoom seen thème bi am na solo beneen bi ci des mooy nit ku ci nekk war nga fexe ba sa wëy jur bu génnee àddina nga taxawu ko balaa muy dem ci yeneen ni loxo ñu koy taxaw mais yaa ci gën a yeey yaa ci gën a yeey pour nga taxawu ko muy sa ndey muy sa baay bu dee sa ndey charia mayu la nga sangu ko mais ku jigéen charia may na mu sang ndeyam ku góor charia may na ko mu sang baayam jëkkër ak jabar ñoo gën a yeey ci sangante jigéen mën na sang borom këram boroom kër mën na sang soxnaam sayyidatuna sayyidatuna Fatima sayyidina Ali moo ko sang te boobu gën a pratique ñun nag suñu aada suñuy kotim suñuy raison ak suñu ñàkk am fit rek nag raagala raagala raagala ragal ba yaakaar nga ne boo ko sangee du la raw <laughs> ragal dee rek moom buñ ne mu ngi ci morgue bi sax foofa yëpp doo fa jaar waaw te ñii sang néew yi sax dañ leen banaliser ba fonk ñu leen sax fonk ñu leen lañ leen di jox sax tekkiwul dara te loolu rek musiba la Abdou Latif Guèye rahmatullahi alayhi wa radiyallahu def na ci xeex ba tàyyi ne ñii sang néew yi ak ñii ñuy ci armeel yi dañ leen waroon na yoreel ay salaire wax na ci bétail yi yal na ko yàlla dolli yërmande wax na ci bétail yi mu ne dañ leen war a utal salaire xoolal boo demee ci armeel yi ñiy gas euh, euh, bàmmeel yi buñ gasee ba pare lañuy jël mbaxana yi naan loo ay am ci kuy gas ñooñu buñ ko organiser woon rek dañ ko waroon a organiser ba mairie di leen fay te pourtant war na mën a nekk ñu organiser ko ña fa nekk di ay fonctionnaire mairie mairie recrité leen di leen fay moske yi ña fa nekk di sang néew yi ñu recrité leen budget jàkka ji di leen fay mais ñun suñ dara lañu organiser wut fu loo wax ñu ne yàlla baax na yàlla baax na kañ ba kañ dañ ko war a organiser moo tax alaaji rawaan mbay ñu ngi koy sant di ko gërëm def na ci liggéey bu mucc ayib waaw ci Sénégal yëpp nag la ko def ñoom imam Moussa mii fu ne dem na fa moo euh, professeur euh, Eh, Mamadou njaay fu ne dem nañ fa jàngale ko buñ paree ñi ko jàng ñëpp ñu jox leen seen diplôme wala laxiir moo tax nit ki buy bu bu nekkee ci xor-xor le foofu la tàmbale moo tax ma indi xalaxal mawta wal xayaata yàlla dafa bind dund bind dee nit ki d'abord moom ci boppam bu demee ba wóolootul boppam may nañ ko mu dënkaane foofu la tàmbale boo demee ba wóolootoo sa bopp wala sax bi ngay dund dara dalu la nga dënkaani waaye ragal rek ragal rek ragal rek ragal rek ragal rek ragal rek bi la dara dalul dënkaaneel su ma dee na ma diw sang ak diw ak diw yonent bi bi muy dund la désigné ñu koy sang salaay sallam ci la yegg benn buñ dindi samay yére buñ may sang nañ ma sangaale ak samay yére daldi di ne ku dindi samay yére dinga nekk yéefar te duma la raw <laughs> daldi ne ku dindi samay yére di nga nekk yéefar te duma la raw dal ne bu kenn dindi samay yére na diw ak diw ñoo may sang ba ci bàmmeel mu ne diw ak diw nañ ma dugal ci biir bàmmeel usaamatu ibnu zeyd ca la bokk waaw wàññiwaatal tuuti waaw kon benn waa baax na bi la dara dalut bi la dara dalul nga war a xam ne da ngay dee inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun ca suratu jumaa suñ borom nee na innal mawta naka dee alladi bi nga xam ne te firru na yéen a ngi koy daw rek guddeeg bëccëg minhu ci moom fa innahu li mbir tey mbir fa innahu li wérte wóor mooy mulaaqikum dana leen dab de mu ne dee gi ngay daw dana la dab ma toppatu topp na dana leen delloo ilaa aalimil xay bi jëme leen ci ki xam li fàddu wa shahaada ak li feeñ yëpp bu boobaa mu ne fa yunabbiukum dinaa leen xibaar bi maa ci sababu la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ko na di ko jëfee ci àddina dinaa leen ko xibaar ci seen bàmmeel kooku ki ko ragal bay daw la yàlla ne boo ragalee bay daw soxlawu ko am na bu lay dab am na booy dajeel innal mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum da ngay dajeek moom yàlla ne boo ragalee bay daw am na boo xam ne da ngay dajeeg moom mu ne soo ragalee bay daw it am na boo xam ne daf lay topp summa yudrik kumul mawt da lay dab rek ne la tàpp yudrik mooy bu nekk ci sa ginnaaw mulaaqikum moy bi ngay tasee kon fay rëcc kooku nag am ku ko ragal ragal ba mel ni Sidi Kunta ragal koo ragal ba ne man dawuma rëlantiwuma damay dugg ci sama biir néeg tëj sama bunker nekk ca biir yàlla ne ko dóore ci walaw kuntum fii burujin mushayyada <laughs> yàlla ne doo rëcc de walaw kuntum fii burujin mushayyada donte danga nekk ci ay bunker man yàlla dinaa la fekk ci biir bunker yi rey la <laughs> waaw maa la ko bu fa la ko dee di fekk président yi ci seen biir bunker yi di fa dund yàlla ne lu tax nga rëcce de bu dee ñëwee ma fekk la fa rey la ñetti façon yi la yàlla tëral te te benn doo ko ci rëcc bii taseeg yow bi lay dab ak ki ragal ba dëkk nekk biir néegam mu ne foo ca mën a ne ma fekk la walaw kuntum fii burujin mushayyada kon bi ngay dund defal ni alaaji Omar jaan di def wala ñi na Yaxya li daan def at mu jot nga xotti càngaay teg defaral ko sa bopp denc ut zam-zam denc ut yëpp denc woo sa soppe bi nga bëgg yaakaar ne ko bu ma fi jógee yow laa bëgg ak diw ngeen sang ma woo ki nga yaakaar ne ko su ma fi jógee yow laa bëgg nga jullee ma koo ko wax sax fi mu ne ci senegal danaan laa xawla wala quwata xaw ma maag yow kuy njëkk a dem laa xawla wala quwata réew mi moo neexut <laughs> nga dem ba ci yoofit nga jënd bàmmeel dañ koy jaay léegi man xam naa ñu bari ñu fa jënd Alaaji Omar Badiane sama xarit boobu jënd na ak ñeneen ak ñeneen Mansour mii li muy bon bon jënd na dañuy jaay nga dem jënd Basirou Diagne Marème Diop dafa jëndoon moom amoon na fulla ju day ni sax saa bu euh, euh, semaine bu jot mu dem fa jàng fa kaamil dem ñibbi ndeysaan bés mu ngi may nettali ku baax la man ku ku dama ko estimer Basirou Diagne dama ko estimer xam nga lu tax dafa am Basirou jaañ bu duggul àjjana gisuma koy dugg àjjana billaahi wal kitaabi yàlla tax may wax de defaluma dara nag mosuma lekk ñaari fiftinu Basirou Diagne soit clair billaahi wal kitaabi mosuma lekk 1000 francs wu Basiru Jaay mais dafa am acte bu mu def boo xam ne moom la na tiijaan Tijaani waxoon moo tax ma wax ko ci tënk ba alalu waajaree Seydina Cheikh ne ku ki ko ki ko far de nitu àjjana la waa ma waa Maghrib yëpp dajee ne def na shirk ndax xamut kuy dugg àjjana mu naa nitu àjjana la ba alal ji feeñee waa ji indi ko ñu ne Seydina Cheikh foo teg ne kii nitu àjjana la mu ne ah ci alxuraan laa ko teg ñu ne ko fan ci alxuraan dimbale ma wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa sey gaa yëpp d'accord Seydina Cheikh ne leen yàlla wax ne suñ borom moo ne wa amma képp koo xam ne man waa ja nga xam ne xaafa ragal na maqaama rabbihi dajeeg boromam wa naha mu tere nafsahu bakkanam anil hawa ci la la neex ci moom te ka ko for amul lum lekk yor for alal ju toll noonu di ko delloo kooku ragal na dajeeg yàlla ëllëg te xañ na bakkanam li mu bëgg yàlla ne na kooku fa innal jannata hiyal ma'wa ku ko yéenewul àjjana it man yàlla yéene naa ko ko moo tax ma ne Basirou Diagne dafa ma nettali bés mu ne ma dama ñëw bés Serigne Cheikh may ko audience nee na ma ñëw Serigne Cheikh ne ko man day Cheikh Tidiane mu ne ko fa may tëdd ëllëg jënd naa ko ba noppi te saabu ne dinaa fa dem euh, semaine bu jot dinaa fa dem jàng fa kaamil def fa ay dog yaa salaam yooyu yëpp ñibbi mu ne Serigne Cheikh xaqataay ne rek saalit rek saalit rek wallaay mu ne Serigne Cheikh xaqataay ne ma Bachiru rek saalit rek saalit rek mu ne matu ko di matu ko fa ngay tëdd loo ci lu ciy sa yoon yow kañ jëfal li ngay jëf rek foo tëdd baax na waaw te moom mi ko wax jëfe na ko moom Serigne Cheikh jëfe na ko waaw mu ne ko saalit rek foo tëdd ëllëg baax na kontewul fa ngay tëdd kontewul li nga jëf moo konte loolu la ko Serigne Cheikh mu ne ko fa ngay tëdd kontewul li ngay jëf rek moo konte te moom Serigne Cheikh mi ko wax dund na ko ndax Baye a Samb bi sës ci moom doon bëkk néegam bi mu génnee àddina moo désigné fañ ko denc tey ca kanamu jumaa ja te bu ko neexoon mu réserveel ko boppam moom bi mu génnee àddina fuñ ko yóbbu ca buntu Tiwaawoon daanaka cëru turandoom la yor nag Seydina Cheikh moo tax dafay yor Serigne Cheikh lim donn ci turandoom ah, au passage ma nuyu sama nijaay ju baax ji Serigne Moustapha responsable moral moustarchidina wal moustarchidaat yi di ko ndokkeel nag ci université de Ramadan hein li dal turandoom moo ko dal Serigne Seydina Cheikh ñaari bàmmeel la am fiñ ko njëkk a denc ak fiñ ko denc nii bokkul waaw biñ ko dencee ba doomam yi sulli ko Mouhamadul Kabir ak Mouhamadul Habib pour yóbbu ko yàlla feeñal leen walla yi del fekk la Seydina Cheikh waxoon rek la doon dëggal dafa noonu Cheikh Mohamed El mooy sama ndono moo may donn sama ginnaaw ba mu fi jógee ba muy génnaa dina fekk fa Cheikh Mohamed El waa Fass yëpp commencé mbepp mbepp mbepp mbepp te dafa noonu Mohamed El Ghali moo may jullee mooy sama ndono mu génnaat dina fekk fa Mohamed El ñu ne moo wali yu bi ñu naan mooy xut bu zamaan ak mooy fardul jaamee mooy maktuum ak mooy yëpp xamul sax ki koy jullee coow li na kur xale yi ñoom it nag dañuy sulli seen baay yóbbu ko ay numaadi Algérie ci guddi gi Seydina Cheikh feeñu ay mag ne leen xale yi sulli nañ ma dab leen leen ñu dab leen ba ci bunti dëkk bi fekk Seydina Cheikh biñ koy biñ koy rab ci kees lañ ko def ñu dab leen ba ci bunti dëkk bi biñ leen dabee ci bunti dëkk bi coow li na kur xale yi ne dañuy dem du ngeen dem da ngeen dem du ngeen dem dañuy dem du ngeen dem coow li na kur ndekete foofu ñu toog di wax ak a werante yoon boobu la Cheikh Mouhamadoul Ghali di jaar di ñibbisi seetal li mu war fasam rek ba yem ci ñoom ne lii lan la fekk moom yëg na ne Seydina Cheikh génn na àddina la daloon Seydina Aboubacar bi yonent bi génnee àddina moo dal Cheikh moom dal Ghali bi Seydina Cheikh génne àddina Seydina Cheikh moo yonent bi nii nii ñoom ñaar nii baaraam bu gudd bii mooy yonent bi salaay bii mooy Cheikh Seydi Ahmad tiijaani ñoom ñaar nii boole naan rek wala boole tuur Seydina Cheikh ak yonent bi nii baaraam bu gudd bii mooy sallallahu alayhi wa sallam bii ci topp mooy Cheikh Seydi Ahmad Tijaani ba muy génn àddina fekk ko fa yonent bi ki ko doon muy Seydina Aboubacar fekk ko fa trois jours après la ñëw Cheikh Amadou Ghali trois jours après la ñëw li gën a yéeme nag mu fekk leen juste ci yoon wi mu ne lii lan la ñu ne ko xale yee sulli seen bàyyi seen bàyyee ñu feeñu te kenn mënuloon ci ñoom dara Cheikh Mouhamadoul Ghali ak euh, kii euh, Chérif Mouhamadoul Habib ak Chérif Mouhamadoul Kabir kenn mënul ci ñoom ñaar dara ndax seen bàyyi la am nañ ci droit te Seydina Cheikh moo waxoon ne su ma génnee àddina sama doom yi nañ ñibbi ay nomades bu leen leen kenn may soxna ndax Fass dëkku kii la capitale la te ay nomades di kaw la te charia bëggul nga takkee ci kaw gi ci capitale yóbbu ci kaw nangu na nga takkee ca kaw ga indi ci capital xoolal Seydina Cheikh ni muy teegee charia moo taxoon mu ne bu kenn may doomam yi soxna Cheikh moom moom Mohamadul Kabir ak Chérif Mohamadul Habib bu leen leen may soxna ndax dañuy ñibbi ay numaadi xale yi ne comme dañuy ñibbi ñuy dañu yóbbaale suñu bàyyi di ko siyaar am nañ ci droit coow li ne kor Cheikh Mohamadul Ghali yegg si ne lii lan la ñu wax mu ne xale yi may leen ma teguñ ci baat ba mu ne may leen ma rek teguñ ci baat xale yi ne ko loo bëgg Cheikh moom moo moo Mouhamadul Kabir ak Mouhamadul Habib loo bëgg ñu ne ko mu ne leen nañ dem bay yegg ci kër zawiya ba ñu yegg si ba ci zawiya bi mu ne leen ñu ci seen bàyyi fii laa bëgg fii la waxoon ne nañ ko ci fii ñu gasaat suul bale gasaat mu ne fii la waxoon ñu gas foofu mu ne allahu akbar jullewaat ko ndax bu ñu la julle sulee ci charia balaa lay suulaat dañ lay jullee waa faas yëpp téye seen gémmiñ ne la Seydina Cheikh waxoon am na Cheikh moom dafa xaale ne ko denc ko fii mu nekk tey Cherif hmm, il Fatimi turandoom bii nag muy sëriñ Cheikh ka kadhalika njëkk nañ ko gasal ci këram nga nekkee fële booy dugg Tiwaawan à gauche fa lañ ko njëkk gasal pour yóbbu ko fa dem nañ bay bay yegg foofu maam Maodo ne waxutoon fii këram gële ca bunti Tiwaawan la waxoon ñu de wëññeekuwaat dem foofa gas te la preuve li lay wan ne foofu la laaj leen sëriñ Sidi Ahmed bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh nee na góor gi bu mosaan ñëw di ko set ci bay doxantu mu yegsee foofu danaan ko sii di fii de coow li bari na fi de am na ku fiy tëdd ëllëg fii coow li bari na fi alaaji Abdou Aziz Dabakh nga kër Sidi Ahmed bu alaaji moo fi denc Serigne Cheikh nii la tali bi rek ka mu ne bu bu fa sëñ mosaan yegsi rek day taxaw naan ko fii coow li bari na de coow li bari na de dina am ku fiy tëdd ëllëg mooy ziar bi bir bi da ci jóg fa lañ denc sëriñ Cheikh ah Alaaji Abdu bokk ci moom it de Seydi Aji Malik la doom la kenn xamul doomam yi ñooy ñan ku ci mën nekk rek mën naa tukkal àddina te ne pat moo tax nit nag suy waaja génn àddina day am ay signe signe yooyu nag da ciy bàyyi xel yow mi nga xam ne yaa ko jege yow néew bi yeen waa conference bi ci yéen laa nekk ba tey de Adja Suuna ak ki la woo démb nu mu tudd madame madame Ba nit buy waaj a génn àddina dafay am ay signe yoo koy xame rawati nag ab jullit jullit moom xanaa yow yaa koy bëgg rek di dof doflu waaye boo ko xoolee piir di nga xam ne kii day dem boo boobaa nag am na ñu la charia may nga waajale ko am na ñu yàlla may ñu mën di wax ba ba ñuy dem am na ñoo xam ne bu mbir mi di yegsi rek seen làmmiñ damm na dootuñ mën a wax loolu nag aajowul texe ak texe wa di de léeg nga dégg wolof wax wax bu soof naan boo ko defut booy dee doo wax sa soxla ñàkk a wax sa soxla dafa tax nga texe daf lay tere texe non mën nga ñàkk wax sa soxla te texe mën nga wax sa soxla yi dem ñu làpp la ba nga nooy texe ci loxo yàlla la nekk waaye siiñ yi moom fawu mu am benn bu nit ki xeesoon wala mu weex dinga gis muy gën a weex bu ñuuloon dinga gis kanam gi di refléter benn leer leer goo xam ne mosoo ko xam ci moom boo ko gisee rek xamal ne day dem bu ko yàlla dimbalee nag mu waxal boppam yonant bi nee na kiy waaja dem wax ne nañ ma defal lii ak lii ak lii mu ne su demee nañ ko ko defal wa illaa am ngeen bàkkaar rawati nag yow mi mu ko wax boo ko defut am nga bàkkaam su ko defee nag ba ca gën a triste méttiwul moom la seniñ Cheikh di wax ne dee méttiwul mu ne dafa triste mu ne ndax léeg nga am gan mu nekk ci kër gi bay ñibbi nga yóbbu ko ca gaar ba wala ca aéroport ba mu ne sa rongoñ génn rongoñam génn lu tax mu ne ndax xamoo kañ ngeen di gisee ndax dana amaat mu ne rawatina koo xam ne ah bu demee dootoo ko gis mu ne kon dee méttiwut dafa tiis mu ne ndax bu métti woon rek yàlla du ko teg rasulullahi waaw nee na dee bu métti woon Serigne Cheikh nee na dee bu métti woon yàlla du ko teg rasulullahi ndax bëgg na ko mbëggeel goo xam ne du ko teg lu métti mu ne waaye dafa tiis nag dafa trist dee dafa triste waaye méttiwul te mooy dund éternel nag dee mooy dund éternel après fii dund gi dafa am limite mais boo xesee dee rek ba dem barzaq léegi sa dund éternellement la dootoo dee dee jeex na ci yow te dee ëllëg yàlla daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko dee ñëw nga mu ne ko mu ne ko deeyal dee ci boppam dee boo légee bés penc ba ñépp taxaw bay waaj a dugg àjjana ci la yàlla di woo dee ñépp gis ko mu ne ko dee yaa ngi nii mu ne ko waaw mu ne ko ku mës a dee yaa ko rey ci sama ndigal mu ne ko waaw mu ne ko deeyal mu dee léegi nag dund éternel commencé waaye ci barzaq lay commencé yow boo xesee dee rek moom sa dee jeex na dee mënut yow lu dul rey la toujours ma wax ko dee mënul ci ñun lu du rey ñu du la yóbbu àjjana du la yóbbu safara fexeel jubóog ki la yóbbu àjjana ak ki la yóbbu safara kooku mooy suñ borom loolu rek moo am solo mais dee dee dee mooy lan dee daf ma ëpp pouvoir ëpp ma benn pouvoir maa ko ëpp pouvoir sax au contraire nit a ëpp pouvoir dee ndax yow boo xesee dee da ngay continuer moom nag bés dana ñëw du mën a ci tus te bu la xesee rey it nag dëgg-dëgg mënu laa yóbbu àjjana mënu laa yóbbu safara mbindeef la bu yàlla bind comme yow kon njarul ragal dënk ko malaka bu ñuy malaka bu ñuy wax malakul mawti alladi wukkila bikum la yàlla wax alladi wukkila bikum moom laa leen wakkil dënk leen ko moom malakul mawti kon su ci nit ki yeggee nag te mënut wax mënut def dara lu dul tëdd ci lalam mooy li yàlla wax wa tafati saaqu bi saaq foofu lay mujjee nag li sëriñ Cheikh wax mu ne nga jox ruy jàllut ak ni ruy woyefee nga gis muy génn mu ne xamal ne baaxatut de ku daan dank di won muy jàll ngeen baal ma ci waxin di wanaasu muy jàll tey dank ceeb jàllatu ku du ruy mënatul jàll nga jël zam-zam lañ njëkk a sopp boo ko joxee ruy jàllul maanaam lekk gu woyof wala meew jàllul parce que boo dee gi xesee ñëw rek doo dara dootul jàll <laughs> yàlla mooy stratégie bu dee xesee ñëw rek dara dootul jàll yàlla day bloqué lépp ni ngay amee sa téléphone verrouillé ko noonu la yàlla di verrouillé yaram bi koor yi koor bi lépp lu ñëw rek da koy rejeté boobu nag ci la ñuy commencé malakul mawti di rocci roox ji moom la ñuy wax sukkuraat moom la yonent bi waxoon salaay salaam ba mu ca tolloo ne wa inna lil mawti sakaraat ndekete dee am na wextan dee am na wextan dee am na wextan ndax moo ñaanoon yàlla ne ko dee bu dee cent quatre-vingt-dix-neuf yëpp teg ma ko benn bi nga séddale ko sama xeet kii moo baax benn bi rek lañuy ñuy ñun de 99 yëpp yonent bi yóbbaale na ko ku dee ci sedd dee yeegu sedd ak dee gu weex ak yëpp fekk benn bi rek lañuy ñuy partagé yonent bi sallallahu alayhi ne wa inna lil mawti sakaraat ndekete dee am na wextan dee am na wextan dee am na wextan dee am na wextan wextanu dee googu nag du ci ñëpp la jullit piir dox géeg wextanu de taalibe cheikh ñu baal ma du tem bi waaye taalibe cheikh cheikh na Tidiane ne maa ko garanti du yëg wextanu dee su ñuy rocci roox gi nag ci tànk yi lay commencé roox buy dugg fii lay tàmbalee buy génn ci tànk lañ koy roccee baaraamu dey bii ngeen baal ma bii bii fi lañuy roccee dee bu droite baaraamu de pas bu gauche bu buñ koy rocci fii lañ koy fii la malaaka bi di commencé moo tax tànk yi njëkk a sedd bu nit di dee tànk bay jëkk a sedd fii la fii la malaaka bi di jëlee roox bi yàlla rek a mën yasalunaka ani roox quli roox min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalilan yàlla na yonent bi yasaluuna ko ñu ngi lay laaj roox yi ci mbiru ruux waaye suñ la ko laajee wax leen ne xulil neel ar roox ruux min am muy laam ci ñi déggul eh, waxuma laam bi ñuy daggee nit de laam ruux laa ci jublu pour ñi ñi déggul lu dul tubaab waaw laam mooy ruux lii tax ngay dund di noy di daw di dem di ñëw di lekk ceeb muy jàll loolooy rox di mën a julli di mën a woor di mën a naafi la loolooy li li tax nga mën ko loolooy rox mooy laam xul neel ar ruux ruux min amri rabbi ci sama mbiru borom la bokk wa maa uutiitum joxeeful min al ilmi ci xam fu roox nekk illaa xalilan lu dul ñu néew ko xam kon am na ñu ko xam abdullah ibnu abbas mu ngi woon ci jotaay bi ne ana minhum yëkkati loxoom ne ma man ci laa bokk ci ñi ko xam fi mu nekk yonent bi ne ko saddaqta wax nga dëgg ndem moom moo mën a yëkkati loxoom ne xam naa fi mu ne ak masa rasulullahi moom li nga li lay won ne yonent bi xam na fu mu ne daf ko sañta wax lim ko ne saddaqta koo ne wax nga dëgg xam na ne ci gaa yi la bokk ku xamul ci gaa yi nga bokk <laughs> ku xamul gaa yi nu muy xamee ne ci gaa yi la bokk ah moo mën a seedeel gaa yi ku bokk ci gaa yi moo mën a seddeel gaa yi fii la fii lañ koy rocce bu malaaka bi ñëwee rek fii lay fii lay fii lay téye sirru bi fii la ne fii ci wërngaru kii bi sédit yii fii la fii la roox ne branchement bi boog foofu la ne malaaka bi foofu lay téye di rocc buy ñëw nag damay bambastal fi mu ne ndax heure bi buy ñëw di rocc dafa naan Sidi Kunta doomu Baye Sidi Lamine ak Kiné Senghor Chérif Ibrahima Aïdara doomu Muntaxa ak Seynabou Diouf comme wax naa Sidi foog ma wax sama bopp yow yaa newoon ci àddina di cëppi cëppi tey loo mën day day waxtaan ak yow di tey loo mën nga ne ko yow yaay kan sax mu ne la man maay malakul mawti ne ko man toppatoowu ma ci man ma am kilifa bu ñuy wax rasulullah mu ne xam naa ko foofu lay commencé daal nag bu la nappee te ngay jullit dafa lay njëkk a napp boo riposté rek mu bàyyi ku man ma am kilifa bu ñuy wax rasulullah doo teey loolu la Seydina Aboubacar Seydina Omar ba mu tolloo ci sukkuraat loolu la waxoon malakul mawti ba mu ñëwee di ko jël mu ne ko teeyal de gënoo ma de da ngay def sa ndigal rek loolu rek laa lay yëgal gënoo ma de dangay def sa ndigal teeyal <laughs> maan bii ñuy wax nga xam ne moo daan reeloo yonent bi salaay sallam keroog bi ko yonent bi dugalee ci bàmmeel wëññee ko di ñibbi dafa dem même yàgg moom yonent bi mu ne teqet ree saa bayi ne ko ah yow de moom mosuñ laa xame rob nit ba pare wëññee ko di ree mu ne ko billaay mu ne leen billaay Nuaymaan moo neex reeloo na ma ba dem mu ngay reeloo nii malaaka yi ci biir bàmmeel ñu ne ko lu mu wax mu ne malaaka bi dafa ñëw di ko laaj ne ko kuy sa borom mu ne leen yéen dangeen ngeen réere yàlla ba di ma laaj yàlla man ah leen tontu <laughs> mu ne malaaka yi ni te xet di yàlla ba di ma laaj yàlla man man de duma leen tontu man xam naa ko bu yàgg kookoo ma indi fii te wax na dëgg di waaye foog ñu laaj ko mu ne malaaka yi ne ko yónnent bi wax de salaay salaam mu ne malaaka ne ko waaw ku ñu yónni woon ci man mu ne laa yéen di amu leen xam-xam mu ngi noonu di dem gisu leen ko moo ma dugal fii rasulullah mu ngi noonu di dem mu ne malaaka yi ne ko waaw léegi tëddal tëddaay bu neex mu ne seen affaire la de <laughs> ah Nuaymaan ah, ah Nuaymaan te moo moo moo daal reeloo yonent bi waaw léegi nag malaaka bi bu ñëwee bu téyee roox bi bu dee jullit la day waxtaan ak moom bul tiit bu la laajee ba pare te lim lay laaj moo la ko gën a xam bu la laajee ba pare daf la naan bul tiit génnee benn mouchoir ne mu ngi nii sa plan àjjana mu ngi nii roox gi dem rek mooy tere ngay dugg fa bul tiit xoolal fii mooy sa chambre à coucher fii mooy sa jardin fii mooy nàngam fii mooy nangam endroit bi boo fa jaaree yaa ngi génnee porte bi jëm ci kër yonent bi yow am nga lii ak yonent bi am nga lii ak Seydina Aboubacar plan bi dafa rëy plan bi la lay wan di la ko jàngal di la ko jàngal di la ko jàngal nga naan est-ce que est-ce que est-ce que waay waay sama kër gi xanaa lii du maa ko liggéey mu naan la yaa ko liggéey de bi maa kuntum taamaluuna ci li ngeen liggéey la de ngay xool di xool mu di la woon di waxtaan ak yow di la woon di waxtaan ak yow di la woon di waxtaan ak yow di nax nag di rocci ruux di ndànk waaw buy wax ak yow rek mu ngi rocci par tuuti pour bañ mu biritaal ci yow di rocci par tuuti di rocci par tuuti ci mooy gis nga mooy tax nga gis làmmeñu nit ki di damm nu muy gën a demee rek làmmiñ bi di gën a damm nu muy gën a demee rek làmmeñ bi di gën a damm foofu nag dañ wax ne yow mi nga xam ne yaa koy assister gisoo malaaka yi waaye moom mu ngi leen di gis foofu dañuy bëgg rek yow bul ko wax mukk waxal laa ilaha illallah da nga naan rek laa ilaha illallah mu di ko dégg ndax moment boobu day dégg waaye du mën a réagir waaye day dégg nag wa taiyaha uznun waa'iya waaw wa taiyaha uznun waa'iya day dégg monde bi yëpp mu ngi dégg communication yi foofu foofu communication yëpp lay dégg séeréer ak bambara ak naar ak wolof ak laag ngi lay dégg à la minute kashfu bu mag bi nag fa kashaf naa ah, kañ looloy kashfu bu mag maa nga woon ca gannaaw ca commencement ba fa kashaf naa an ka ak ak foofoy kashfu bu mag bi nag yaa ngi dégg yëpp wata iyaha usnun wa iya ba États-Unis oto yi daw sax yaa ngi leen di dégg lépp la yàlla ubbi nga am fathul akbar di gis lépp nag yaa ngi gis lépp à li ci àddina bi yëpp ngay gisandoor à la comme boolu ceeb boo tiim muy rocc nag foofu nag dañ bëgg ndax iblis foofu it day ñëw moo noon yàlla sa waa ji laa aqudannahum siratikal mustaqim danaa jonkon ci sa yoon wi jëm si ci yow dernier suuful sax xeebuma ko ci ñoom pour dévier leen <laughs> moo ñu toppee mbooro maa la ko wax dernier suuful la wax yàlla dina bàyyiwuma ko la aqudanna te daf ko gëñ la aqudanna gëñ naa ne ala siratika danaa toog ci sa yoon wi ne coow jëm si ci yow ba dernier suuful xeebuma ko ci ñoom moo tax foofu day ñëw toog ni malakul mawti di ñëwee toog lay ñëw toog malakul mawti ci bopp bi lay ne ci tànk yi lay ne moom ci bopp bi lay ne moom iblis di la ëf ëf muy sedd mu génnee benn mbuus ndax kuy dee day mar mu génnee benn mbuus bu def ndox mu sedd guy di ko yëngal nan la weddil yàlla rek mu may la nga naan <laughs> pouvoir la am te day dugg ci deret yi doomu aadama day soppeeku dugg ci sa biir deret ji di daw loolu la ñaanoon yàlla daf ko ne may ma fu ma neex ma am accès ci nit ki feek bu ruux bi demut laam bi demut rek may ma maag moom xeebu ma ba dernier souffle may ma maag moom may ma rek maag moom yàlla may ma rek may ma acca mu ñëw toog nag ci bopp bi yor butéel yor mbuusum ndox mu sedd guy di ko yëngal di ëf eh, eh, koor bi nag boole ci ëf ndax kuy dee day tàng ëf ëf di yëngal mbuus mi naan la weddil yàlla ma may la nga naan weddil yàlla ma may la nga naan foofu nag moo tax boo ne ko waxal laa ilaha illallah te moom mu ngi gis iblis naan ko waxuma ko fekk iblis lay tontu sa njortu ñaaw xam nga yow danga ko naan waxal laa ilaha illallah iblis naan ko weddil yàlla ma may la nga naan moo tax bëgguñ nga ne ko waxal laa yow daal toogal rek naan laa ilaha illallah ci wetu ndeyjooram lañ bëgg nga toogee dangay ngay toogee ci wetu ndeyjooram am na ñu ne ci wetu càmmoñam moo gën ndax fa la xol bi nekkee waaye asxaabu yamin mooy moo gën fii àddina la demaguñ da ngay toog ci wetu ndeyjooram jooram comme iblis moom mu ngi ni faax ci càmmoñ bi fa la toogee yow toogeel ci wetu ndeyjooram jooram naan laa ilaha illallah mu di ko dégg waaye boo ko nee waxal laa ilaha illallah fekk iblis lay tontu ne ko waxuma ko sa njortu ñaaw mu ne bu ko defee da naan laa ilaha illallah mu di ko wax bu demee ba mënatul ko wax jàppal ne mu ngi koy wax yaa ko déggut ndax làmmiñ bee damm nga continuer rek yow sa laa ilaha illallah laa ilaha laa ilaha illallah ndax feek yaa ngi koy wax rek moom mu ngi koy dégg accompagné nag ak malaaka bi nga xam ne mu ngi koy wan fa mu jëm ca àjjana booleeg yi muy gis yëpp nag à la minute yàlla nga koy filmeel àddina bi nii àddina bi neex naa dégg du ngi nii di wax fii ci amookaat ci zawiya jarga sow fii ci amookaat ña ca États-Unis may dégg ña ca pare ak may dégg ña ca euh, Italie ak Espagne ak Belgique ak may dégg à la minute ba ca Allemagne Abdou Aziz Guèye ak soxnaam Aji Kunta ñoom ñëpp may seetaan à minute ni ko tubaab bi ma ne yàlla ko ko dàq nag yéen itam moo tax boo xesee bay nekk di sukuraat rek fa kachaf naa an ka aka fa basaruka al yawma xadid yàlla ubbi na sa gis foofu du gis bii xol bi bët mooy bët bët mooy bët bët du gis xol mooy gis moo tax na wiir basaa'ira abdikal mutazallil bu ko defee nag yàlla ubbi nga jàkkaarloog àddina bi yëpp ba ca Nations Unies fu mu mën a doon lépp ngay gis à la waaye doo ci mën dara nag yàlla daf lay won pouvoir am malaaka bi nag foofu lay wax yow kii naan laa ilaha illallah malaaka bi di la nax ndànk-ndànk malakul mawti malakul mawti nag dafa am ñu koy jàppale benn la waaye dafa am ay taalibe yu koy jàppale ci dee gi bu ko defee nag bu buy rocc nag buy yegsi ci óom yi moo tax yàlla ne tafati saaqu bi saaq wa qiila man raaq da ngay woo njëkk a wax wooyi leen Abdou Aziz Guèye mu mocc ko wooyi leen Chérif Ibrahima am na ñaan gu baax gum ci daan def sëñ Souleymane sàmb nag moom rawati moom moom tabaarkàlla moom moom bu bu ñëwee rek yëpp baax yàlla ne baax na fii mocc amu fi wàll fii <laughs> yàlla ne fii mocc amu fi wàll wadanna moom mii tëdd tey annahu li wér te wér mooy lii mbir tey mbir mooy li ko wér moom xam na ne de annahu firaaq day dem day teqalikook àddina tey jëm fu ñuy wax barzaq pour xaar ma fa annahu moom mii tëdd yéen a xamut waaye moom xam na ne day dem mu ne duñ mujj nag lu dul watafati saaqu bi saaq nga yëkkati peeru tànk bi mu dal ca bële nga yëkkati waat bële mu dal ca bële yow rabbika yawma ma masaaq mu ne bu boobaa nag fala saddaqa wala salla jëriñ saraxe jëriñatut julli jëriñatul jeex na kaste nañ téeréem dossier am tëj nañ ko foofu nag bu ruux bi demee rek da ngay gis mu xulli bët bi mooy premier étape xulli boobu muy xulli ñaar la këram la doon xool ak yi ko yàlla doon won mais dootul mën a xef ndax xef yàllaa ko moomoon te jël na ko foofu la njëkk a soppee nga ne bismillahi jël sa ñaari baaraam yi wàccee ko bët bii ak bii am na ñu naan nii ñaar yi lañ sopp yii dafa am secret bu ci nekk moo tax bii mooy rasulullahi bii mooy bu ko defee nga bës ko nii mu wàcc nga jàng falaxi ak naasi ci bopp bi door koo muur tàllal ay cëram balaa nga koy muur da ngay tàllal loxo yi lu waroon a tàll parce parce que moment boobu fekk na seddagut tàllal tànk yi ba mu tàlli tàllal loxo yi ba cër yi tàlli nga tàllal ko yëpp def ko nii mu mu tege ci kaw euh, tànk yi maanaam yëpp tege noonu nga nga yeew ah, nit du dara nga ut tuuti morso takk ñaari baaraami tànk yi maanaam ñaari baaraami déy yi bii ak beneen bi nga boole ko takk ko pour bañ mu ndax dootul mën a téye boppam nga muur ko yóbbu ko nag ca morgo ba boo ko yóbboo ca waaw kañ jëlal na la sayit def waaw kañ ñaari diggante ñaari tànk yi ngay takk noonu morso fii tamit nga takk ñaar yi nii hmm? jël nga ko nga takk ñaar yi noonu nit du dara bu ko defee du mën a loxo yi du mën a balancé wu tànk yi du mën a balancé wu nga jël ko nag yóbbu ca morgo ba boo yóbboo ci morgo bi nag ña fay jiitu na fekk muy ay koj armalam ñoo xam ne xaraamul ñu xool ko waaye nii Sénégal di def dañ kumpa ku dee rek ñu ne anamu mu ngi ci morgue wuy sama ndey la ilaha loolu ba kañ ma xool ko ma xool ko yow dañ la ko xoolloo ku la ko xoolloo ña ko war a xool nañ ko xool waaye ña ko warta xool bu ñu fa am accès na am ku fa jiitu bés biir bi ndànk nag la koy bés di ko wàccee ndax dañ bëgg yi desoon ci biir bi génnee ci turu yi war a génn ak gémmiñ gi nit du dara nit du dara billaahi nit ñi nañ bàyyi xel dee bu ku bàyyi xel dee rek billaahi yonent bi nee na kuy bàyyi xel dee di nga bàyyi xel yàlla nga bës biir bi boo bësee biir bi dañ bëggoon dese yi li desoon ci biir bi te génn gutoon mu génn ndax buñ koy sang mu bañ a am benn problème boo ko bësee ba yooyu génn moom la ñuy wax nga xobbi ko nga xobbi ko mooy nga raxas ko nag ba mu set muuraat ko bàyyi nag bu dee yaay sang wala ñiy sang ñu ñëw sang ko waaye loolu moom ka koy def na fekk muy ku ko jege doom moo ci gën a jekk bu dee jëkkër jabara ci gën a jekk bu dee jabar jëkkër a ci gën a jekk ña gën a jege al aqrabu awla waaye dañ kumpa baaxut ñi gën a jege ñoo gën a yeey nañ bàyyi ñooñu njëkk am accès ci néew bi ci morgue bi bu ñëwee ci morgue bi ba defal ko loolu ba noppi nag sangkat yi dooru ñëw bu dee yow ci sa bopp sangoo ko sopp nañ muy ñetti nit su ma juumee rek nga dimbali ma sëñ Sidi sopp nañ muy ñetti nit kii di wëlbati kii di sotti kii di ragg ndax néew dafa diis lu dee de am na ñu koy def nag dama koy dégg jël xeer teg ci biir bi non loolu amul yërmande yonent bi nee na ku dee kawaram sax bu ko xus moo tax ku deeyaale mèche <laughs> mèche dafa xaraam soit clair jigéen ñi mèche dafa xaraam ku leen ko mën a wax da leen bëgg rek waaye mees dafa xaram boo ko deeyalee nag kenn du ko firi ah, ah nga yóbbaale lu xaram parce que yonent bi nee na nit bu dee bul xus sax kawaram te koy firi di nga di nga dagg kawaram te fii dañuy jël ciseau dégg naa di ko dagg dafa xaraam kenn du ko def yonent bi nee na kuy génn àddina kawaram sax bu ko xus bàyyi ko noonu yow yaa meesu ba dee nañ la yóbbaaleeg say mees boo demee nga lay cee kanamu yàlla yaa xam yoonu kenn newu ci mais kenn waru koo dagg fii dañ koy firi wala ñu jël ciseau dagg ko ba nañ ko ba kenn du ko def kenn du ko def bu ko defee nag néew dafa diis kiy sang kiy ragg ak kii wëlbati ak kii sotti kii day sotti rek ñuy ragg ni ñuy sangee néew yomb na comme ni ñuy sangoo farata la rek ni ngay sangoo càngaayal farata noonu la ñuy sangee néew néew daf du mën a sang boppam dañ koy sang rek loolay différence bi damay damay bañ ñu yàgg fi mooy farata mooy jannaa boobu boo seeyeg sa soxna wala nga gënt man yu génn yow mi amul soxna wala nga gis règle na ngay sangoo noonu la ñuy sangee néew ndox ya nag mooy différence après buñ ko sangee ndoxum ndox mu set ba pare ndoxum ñaareel bi dañ bëgg mu am gowe walla siddéem la taxoon ñu ciy def xobu siddéem mooy xobi siddéem day setal te day tax néew bi du gaaw a yàqu waaye saabu kañ mën na benn tey boo amee saabu baax na dara newu ci ah waaw bu ko defee bëgg nañ ndox euh, ñetteel bi ndoxu ñetteel bi du noonu ci lañuy def gowee kaafuur ak yooyu parfum yeeg yooyu parfum bi nag dañ bëgg nga jël witteen cëpp ko ci parfon bi laal fii ci jëbi laal fii ci bakkan bi laal fii tuuti ci gémmiñ gi laal fii laal fii laal ci oom bi laal ci oom bi laal ci caati baaraam bi laa bu bu ndey bi laalaat ci cati baaraam bii xam nga loolu mooy lan sab at juróom-ñaari cër yi muy sujuutee julli del siwaatul ah julli del ah, si na bu ko defee nag ñu door koo sàng boo laalee witteen yi noonu ba noppi nag nga jël witteen nit du dara teg fii bu dël bu dëll witteen bu dal teg fii jël beneen witteen teg ci bët yi jël beneen witteen saañ ci nopp yi jël beneen witteen defal ko ko ci suufam door a indi laxasaay yi fekk nag fomp nga fi kiyoon yoon pour ndox mi wow ndox mi wow léegi nag ni ñu koy defee sax morgue yi tabarkal la ndox mi day dem daanaka du toog silwise na trop bu ko defee ñu door koo sàng sàng nag ñii rek la bu la neexee muy benn càngaay comme niñ defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wurule ko ci takk fële takk fii jeex na boobu gars yi dañ koo ragal rek boobu lañ defal yonent bi benn malaan rek ñu rulle ko ci takk ci tànk yi takk ci bopp bi jeex na bu dul boobu ñu defal ko ñaata càngaay ñetti càngaay hmm? bu dee góor bu dee jigéen ñaata juróom-ñaari càngaay lay doon ndax bu dee jigéen daf ciy am musóor ak pendal pendal mooy sër bu ndaw bu tol nii rek ci oom yi pendal ñëpp xam nañ ko mooy sër bu ndaw ah yàlla yàlla moo mën gis nga ni mu suturaalee jigéen góor juróomi morso lay doon maanaam daf ciy am tubéy am ci mbub mu ndaw am ci mbub mu mag ak bi ñuy biñ koy laxasee loolu mooy pour góor bu dee pour jigéen juróom-ñaar la ciy am bu ndaw pendal mooy sër bu ndaw ak sër bu mag bi ak musóor ak biñ koy laxasee waaw ak biñ koy laxasee muy juróom-ñaari moo tax ñu naan juróom-ñaari yi percal waaye du juróom-ñaari mètre yi percal juróom-ñaari dogit la. Hmm? waaw bu dee jigéen mooy am juróom-ñaar bu dee góor mooy am juróom jeex na du noonu la ah bu paree rek pare na sopp nañ nag fi ñu koy sangee na fekk yaa ngi koy ñaanal na foofu day dégg mu ngi dégg ba tey mu ngi gis ñii ñëw ci jàkka ji yëpp ak ña kër ga yëpp mu ngi leen di gis léeg sax mu ne diw ndekke foogoon naa bu ma dee moo fay jiitu ndekkete ba tey ñëwut <laughs> ah diwa ñàkk kóllëre man demaguma sax gisuma ko mu ngi ci morgue bi waaye mu ngi gis yëpp yëpp lay gis foo moo tax foofu bokk moo tax sëriñ Mor Diop yal na ko yàlla fay moom day daf ciy boole day defal néew bi naafi la moo tax defal na ko faama wàdd fii ñëpp teg ci seen bët ñu bari miinuñ ko te day tax sax wax ji ci jàkka ji wàññeeku moom naafi la bi sëñ Mor Diop da koy def moom bu ñëwee rek da koy imposer ñëpp naafelaal ko naafelaal néew bi le temps ñu koy sang buñ paree génnee ko nag ci biti buñ ko génnee ci biti bu daan dugg ci jàkka ja ca buntu jàkk ja lañ koy teg ca bopp ba du dugg sax ñëpp nekk ci gannaaw ñu jëlax ko ca kanam moom mooy yàlla sa waa jàngook ñëpp dégager nañ seen responsabilité kam tànnoon nag pour mu ah waaw waaw kii tox a ah, déet loolu moom duma ma ci waaw duma ma ci du ci sori ker bu ngeen tiimoon kuy tux ku génn àddina tuxkat yëpp dañ leen waroon a won kuy tux ba génn àddina billaahi dana ko bàyyi damay bañ rek ñu ne damay sabote wala nangam ak nangam xam nga Sénégal neexul waxe mais gis nga nit buy tux ba génn àddina wallahi waroon nañ ko won moromi katam yi dund daañ ko bàyyi gis nga nicotine bi moo tax ma déggee ñu ne nicotine bi baax na ci eh, feebar bi coronavirus ne mii ñii ñii ñii ñoo mën a kàcc gis nga nicotine bi balaa nga koo sang moom kañ kuy tuxu moom gaaw leen suuli ko rek wa day génn ci nopp yi nicotine bi nopp yi bakkan bi gémmiñ gi suuf gi yépp ay génnee te comme goudron lay mel day ñuul kukk xesewu xunn nag day ñuul kukk kukk kukk xesewu xunn wéttéen boo ci mën a taf simlaak saala mu yegg si non tux baaxul tux baaxul baaxul baaxul moo tax en général dañuy gaawantu sax pour jullee leen rabi leen ndax xet gi balaa muy gaaw a gilli su ko defee nag foofu ki koy jullee na ñëw bu taxawee kàbbaar ñeenti kàbbaar la bi gën a eh, eh, yomb ci jàng mi mooy nay wax rek alhamdulilahi del siwul del siwul dernière étape del siwul baati alhamdu bi ma cent bi ma doon wax del siwul boobu gën a gàtt ci jullee alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi allahuma ixfir lahu warhamhu bu dee jigéen allahuma ixfir laha warhamha booboo gën a gàtt ci jullee boo demee ci yeneen téere yi nag ñaan ya gudd na waaye bi gën a gàtt laay jël boo ko mënul sax te topp ci jullee gi neel yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko gannaaw boo waxee alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi allahuma ixfir laha warhamha wala allahuma ixfir lahu warhamhu booboo gën a gàtt ci ñaan gi nga wax ko juróomi yoon juróom-ñaari yoon kàbbaaraat wax ko ñetti yoon juróomi yoon juróom-ñaari yoon bu la ci neex rek yaay tànn ñetti yoon juróomi yoon yoon kàbbaaraat muy ñaar nga waxaat ko kàbbaaraat muy ñett nga waxaat ko kàbbaaraat muy ñeent asalaamu aleykum ju léegi jeex na nañ ŋàbb kii ñi ko gën a jege nag lañ bëgg ñu téye ci jaat ji bu dee ay sët bu dee ay doom baax na ñi ko gën a jege aywa bu ñuy dem ci armeel ya dañ bëgg ñuy tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla bi ba ñu yegg suñ yeggee ñi ko gën a jege nañ ko nangu suñ koy tëral ci biir bàmmeel gas ba bàmmeel bi buñ koy gas nañ ko gas fii nag mënu ko Dakar mënu ko ñaari étape la waroon doon gas bi ak gas bi ci koñ bi waaye Dakar boo ko defee day màbb mënul nekk bu dee kaw ga nag moom suuf sa dafa dëgër waaye fii suuf si dafa nooy yonent bi noonu lañ ko defal dañ gas nii gasaat dañ bëgg buñ ko dugalee làq ko ci foofa wàccee suuf jël ay xeer teg ko door a wàccee suuf fii nag comme mënul nañ gas noonu rek gas bi tamit warul paase oom warul paase say oom minimum na yegg si ba ci say oom buñ gasee ba foofu baax na ñu dugal ko buñ ko dugalee nañ ko taf mu tëddee ndeyjoor ñi koy dugal nañ ñi ko gën a jege suñ koy dugal balaa ñu koy wàccee nañ jàng laaye ji bismillahi wa ala millati rasulillahi la ñuy njëkk a wax door a wax nag minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra door koo teg kon lu ñëpp war a mën a wàccee néew ci bàmmeel minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra gannaaw ba nga waxee ne bismillahi wa salaatu wa salaam ala rasulillahi bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu door a wax nag ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra mooy aaya bi yàlla di wax ne ci lañ ko bind ci suuf ci lañ koy delloo ci suuf buy dekki ëllëg ci lañ koy jëlee nga puus ko noonu nag jël ay xeer teg ci ginnaawam booy tegee xeer yi ci ginnaaw ba noppi nag génnee sa benn ci ku ne génne benn càmmoñam seen tànkam ngeen wàccee suuf si ndànk bu ngeen koy wàccee na ngeen di wax minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra di wàccee suuf si ba génn na ci biti acca jël suuf si yëpp xëpp ko nag sotti sotti sotti ba bàmmeel bi fees ngeen jal ko sopp nañ ngeen jal ko ba mu niru bàmmeel ngeen def benn bant bu tooy ci bopp bi benn bant bu tooy ci tànk yi léegi nag Dakar mool rek la ñuy def wala plate wala tableau boo defee noonu ba noppi nag ñu ñaan bu ñaanee luñ jàng baax na bëgg nañ ñu wicc ndox ci kaw barkeeloo ko ca yonant bi sallallahu alayhi wasallam ndax defaloon nañ ko ko waaye bu dee jamonoy ngelaw bàmmeel bi bañ a gaaw a raaf moo tax loolu lañ ci jublu ñu wicc ndox ci kanam ci kaw bu ba pare nag bu ñëpp di dem sopp nañ ku fa toog nañ désigné ku fa toog ah yombut nag gaa yi ragal nañ ne buñ fay toog malaaka mi jël leen na am ko toog naan ko Sidi Kunta yow mii yaay doomu Kiné eh, Kiné Kiné Senghor ak nuñ koy waxeeti bàyyi Sidi Lamine Kunta Chérif Ibrahima yaay doomu Seynabou juuf ak Muntaxa Aydara bu malaaka bi ñëwee nii di la laaj dana la wax kuy sa borom ne ko yàllaay sama borom bu ne kuy yonant bi ne ko sa muhammad rasulullah mooy sama yonant bu la laajee kuy sa téere luy sa téere nga ne ko alquranul karim mooy sama téere loolu ngay wax di ko wax di ko wax diiru cinq minutes wala dix minutes fekk ma malaaka yi di ko laajandoor mu lay dégg ndax dafa lay dégg moo tax sopp nañ muy ka ko gënoon a sopp wala muy kilifaam sëriñam dafa des di wax loolu malaaka yi bu buñ ko koy posé day dëppook yow bi ko koy wax ndax yónnanti bee ko waxoon ne dee leen tontul seen néew yi ndax malaaka yaa ngi leen di laaj ci instant boobu su ko defee nag yow ngay wax muy wax ngay wax muy wax ba malaaka yi jóg dem nga jóg dem salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu subaa it ñu cofaat ci leneen comp boole ko ci door dugg ci thème suba bi incha allah kon suba incha allah ñu ngi waxtaanee alkazibu ci laxdari waaye daanañ mosaat tuuti ci li door a tëj waxtaan wi in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tuuti alquran ah waaw اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ۖ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤمنوا يُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليسر يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فإن